barakaatu bokki auditeurs yi rajo municipal de Dakar RMD yéen ak Cheikh Ahmad Tidiane ñan ci guddi ajjuma bu 23h jotee muy fukki waxtu ak benn 11h ci guddi waxtaan ak jullit yi yee leen alquran te hadis sallallahu alayhi wa sallam bu une heure du matin jotee mu tàmbali fajtal toog ëtt bu yaatu ak ay borom xam-xam wax li jëriñ doomu aadama yi ci seen wàllu wér-gi-yaram ngeen di ci ànd ba tey ak Cheikh Ahmed Tidiane Niang ak ay borom xam-xam fii ci rajo municipale de Dakar RND ñuy émettre ci fréquence 95 point 5 building communal asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim. الرجيم بسم الله الرحمن di nuyu ñu di ziar ñu ngi leen di balu ak ci ndokkeel ñi nga xam ni euh, bàyyiwuñu kenn di nuyu di beral sama baayu bopp baayu njaay xalifa di ko ñaanal yàlla bu baax ak alxaaji tafsir saaxo tabaarakallaahu ndax lii ko waati waawoon defal way juram di bàyyi ilimaan saaxo ndax nee na ma maay caat nee maay caatu bàyyi ilimaan saaxo kon nag su àndeek Seydil Hadji Malick ba yàlla dogal li fi jële ñépp muy dee bàyyiwul kenn moo leen tàqale ci rafetuk ànd eh, alaaji tafsir saaxu nee na ma alxaaji ibu saaxu sax du taaw sama baay nee na am nay mag wante man nitam dégg naa ci alaaji ibu saaxu mu ni doomam doomu baay ilimaan saaxu yëpp moom rek la Seydil Xaaji Malick jël loxoom teg ko ci kaw boppam <laughs> moom baay Ibu Saaxo ah, baay Ibu Saaxo itam bi mu fi jógee yàlla yàlla yokk leeram ak njéggalam mu bàyyi fi ay njabootam ah bàyyi fi rakkam ah bët yi nga xam ni moom la ko waati waawoon daan xool di ko xool bàyyi ilimaan saaxo di ko xool alxaaji ibu saaxo moom la ñu xool tey alxaaji tafsir saaxo ak njabootu maam ilimaan saaxo yëpp ak njabootu alxaaji ibu saaxo tabarakallahu ba moom itam ndax waa kër Seydi Alxaaji Malik ñoom du ñu fecc wëllëre ilaa yowmal qiyaamati noonu rek loolu lañ mel kon ni nuyu alxaaji tafsir saaxo di ko ñaanal yàlla bu baax yàlla dolli wéram ak kàttanam di ko ñaanal bu baax sama bàyyi njaay xalifa mu sëriñ kër Si eh, mbokk yi tey nag ñi ngi nekk ak alxaaji gay Gaye donte demagul màkk mais ma gaat nga ndax mën naa am déwén xëy nañu ànd bu soobee yàlla <laughs> ak suñu ndoom di yaat ma ñang tabarakallah ñu fas yene and ak yeen ba fajar ci mbaxu yalla tay nak lima waxon moy ma ngi nuyu bu baax nak pa Ousmane Diop sama ma sha allah di sama xarit di nuyu al alxaaji Samba Cissé di nuyu mbollem serigne yi nga xamni ni jaar nañ fi ba ci góor gi Malima ak Idrissa wad. Alhaji biran wayal ak nak bayyi wuñ kenn sama xaritu bop di musa Nguer Jinne tey mhm. euh dama rate mhm. mais tay dama ni won damay waxtaan rek ci mbiru jinne ah non waajalu ko nak wajaluma ko ndax bëgg may wax di tatone mhm, waaw manam bëgg may koo xam da ngay tok te li ngay wax amul tektal. waaw kooku euh, xam-xam daf koy bañ. waaw su ko defee looloo tax nde dama fàtte ba ci yoon wi. ma mhm. ni xoo indiwuma sama document ba ndax gëstu naa ci du tey du tey gëstu naa ci ba pare mhm. mais la ma gëstu laa fàtte andiwuma ko wante tey danaa waxtaan ci luy tax ruux mhm. luy dundal ak ruux dinaa wax ci luy dundal xel waaw ndax xel mooy rakki ruux dinaa waxitam itam luy dundal jëmm ndax jëmm mooy rakku xel wala boog jëmm mooy mag ji xam nga lu tax ruux njëkk a ñëw jëmm ñëw ba ca kanam xel doog a ñëw xel après lay ñëw ndax ruux la yàlla njëkk a bind doog a bind jëmm bi mu bindee jëmm jëmm ñëw ànd ak ruux xel ñëwagul xanaa xamoon ne nit bu fekkoonte ni ba muy judd dafa am xel kon am na wayjur yoo xam ne dafay lànk ni du ma fa judd dëgg moo tax nit ki balaa muy judd xel du ñëw après la xel di ñëw ba tey itam bu fekkee dafa judd xel ñëw maanaam ruux ñëw xel ñëw su boobaa dana bare lu ba lu xale di bañ ci yaay ji koy nampal te dina am lo xamni ni moom du ko soxla ndax du ci am xalaat motax yalla yàlla ba xale fer bu feree ba am juroom ñaari at la ruh nak, commencé nak di circuler ndank ndank ndank ndank ndank ndank ndank ndank bo mu am 18 ans xamé do a ñew manam ma nga nan ruh xel xel dama joom de xel xel dooga ñëw bu xel ñëwee nak ba ba nga am 18 ans xàmmee dooga ñëw xamé su ko defee kon loola dina ci waxtaan incha allah delluwaatit waxtaan ci li nga xamni dina tax mu doomu aadama mëna wër su ko nak di duma bayyi nak ben yoon suñu mbokk suñu xarit suñu genn wàll suñu am gi jàmm siidi sëy tabaarakallaahu di ko ñaanal yàlla wér ak kàttan ci zaahir ak baatin moom siidi sëy ndax ànd gi yàgg na en même temps dëggu na en même temps it njariñ li yaatu na di nuyu nag soxna caba laay soxna caba soxna caba ñu ngi koy nuyu bu baax soxna cabalaay ñu ngi koy nuyu macha allah euh, tey nag li ma njëkk a wax mooy ku bëgg a wér bala maa ngi ñaan nag sama mbokk docteur xam naa bu fekkee mu ngi ñuy déglu dafa am lu ma jaaxal ci nit mooy da ngay gis togg ceebu jën teg ci supame teg ci karoot teg ci nawe teg ci ñàmbi teg ci jaxuta teg ci basant yenn saa yi sax ñu xaraale li moom teg ci mais maanaam docteur bu fekkee yaa ngi may déglu walla keneen ku ci mën a déglu dugg toujours kañ ciy njëkk attaqué mooy jën waaw li teg ci ndab yëpp jën lañuy ñuy jël léegi nag yeneen légumes yu ñuy togg su fekkee am na njariñ ñi jàng boobu domaine bu ñu duggee ñu wax pour nit ñi bu ñuy lekkati ceeb bi ñu fexe bay lekkaale li jigéen ji togg ci biir cin li mooy am na benn boo xam ne nag mooy lu mel na jaxute ndax am na njariñ ci doom aadama wala dafa rafetal bool kooku docteur moo ci am xam-xam comme ñu ngi ñuy déglu yaakaar naa ne dinañ ñu ci mën a jox lu wér ndax il faut il faut itam nit ñi ñu di leen di encourager ci li ñuy lekk benn li ñu tudde suppame ndax moom bari na njariñ ci nit wala dafay wettili bool bi ndax yooyu ñuy teg ci suñu kaw ñam yi jigéen ñi war nañoo xam loolu ñuy teg ci kaw ñam yi dana leen jariñ walla du leen jariñ ak nawe nawe nag moo ci gën a ñàkk sens moom daanaka moo ëpp lu muy des. kenn du ko waaw te dañ koy toggaale. kon su fekkee docteur yi ñu ngi ñuy déglu ndax nit itam lu dul sa domaine dangay xam ne yow lii du sa domaine jàngoo ko su fekkee nag ñoom ñu ngi ñuy déglu nawee boobu ñuy bàyyi ci kaw ñam wi ndax lu ñu war a fonk ci lekk la walla dafa am nuñ ko war a lekk benn danañ ci def pataas yenn saa yi danañ ci def karoot léegi yooyu yëpp nag dañ ko war a xam ba xam njëriñam ndax toujours da ngay gis ñu lekk ba pare loolu des fi ak ñaam bi waaw xam naa nag sama jigéen moom bu ma déggee moom soxna Fadima Tall <laughs> soxna bu Tall na mun Mountaga moom sama jigéen la yàlla ma ko seddee maa ngi koy nuyu di ko ziyaare bu baax su ko defee yooyu danañ ci waxtaan mu jëm ci wér gi yaramuk doomu aadama bi ci des ñuy wax ci loo xam ne dafay dundal ruuxu ñi wax ci lo xamni itam da fay dundal jëmmi doom aadama ji manam jamuji. ji tay nak limay ñëk andi moy lo xamni du pikir bu docteur joxe vaccin du du bu docteur joxe Ki alquran la wala bok mag ñi la yalla baxé yalla xamal leen lo xamni bepp bépp bu ñu dégg ci am réew nit ñe buñ koy wax yàlla dana leen musal ci feebar boobu te feebar bi dana génn te du fi gaañ kenn am na lu fi xew kon bu bu njëkk ba boobu nag mbokk yi li ma ciy njëkk wax mag ñi wax nañu ni muy baat yii ma di jàng képp ku yàlla dogal nga di ko musiba mu mën a ñëw ci am réew lu musiba ma garaaw garaaw garaaw garaaw yàlla dana la ci musal. kon Ebola eh, baax na si. torop jërëjëf. ma déggit ci Seyd Cheikh Ahmed Tidiane si Al Maktoum mu ni sëriñ Babacar si leen ni woon doom am na jàngoro joo xam ni dugg ci dana dem manam dana ñëw dana ñëw mi ngi ci kanam di ñëwi sëriñ Babacar si wax leen ko ni leen su yàlla dogalee ngeen man baat yi te neen daf ni ko nag feebar boobu bu ñëwee du pardonné ku mu dal rek daf lay yóbbu ñu ne ah ah Babacar si lu mu wax dëgg la ndax yàllaa koy wax loo sëriñ Cheikh nee na ñu dékk ko suñuy nopp bind ko mu ne su ngeen koy wax yàlla dana len musal ci musiba boobu ñu ni waaw suñu doom yi toll ci fer ak yi feragul ak yi nga xam ne juddooguñu te ñoom mënuñu koo wax nuñ koy def mu ni ngeen koy ngeen ngeen koy jàng di leen ko yéene ñaata mu ni fukk ak benn doy na onze gis nga de ñu ni ko lan la mu ni yaa qaadiran yaa muridan yaa qaa'iman bi nafsihi هذا مرض شديد فكفنا من بطشه ني نك كم دكو خم خم لا ني نان فكفنا من باسه ني نان فكفنا من بطشه سوكو ديفي كون يا قادرا يا مريدا يا قائما بنفسه haada maradun fi naa min batshihi maanaam booba feebar bii di néewi biir xëy na dinay am mais barewul woon ñu koy tuddee hépatite B nga xam ni daanaka dafay nekk cancer de foie nga xam ni ku mu xas ba jàpp ba ci ci res wi mhm. su ko jàppee rek musiba am febar bobu mom xam nga du japp nit muy recc ñu ni xeyna ndax loolu la ñu ni ndax cancer yi di xew la ñu ni xew na ndax abc yi la ñu ni xew na ndax manam xam nga yeedi bu njëkk ba abc maanaam wul won ak xeetu febar yoy yëpp ak lu mëna xew moy serigne Babacar ci dafa ni febar la bo xamni bu ñëwé du pardonner ray rek wala mu gañ moy bi xew légui rek bu bon bi mu ni su ngeen bëggé nak mucc ci di leen jang baat euh tay sax joxe naa ci euh, tegtal ci daara ji ma ne leen yaa qaadiran yaa muridan yaa qaa'iman bi nafsihi haada maradun shadidun fakfina min batshihi nga bind ko fukki yoon ak benn jël saafara boobu nga raxas ko ba mu set nga xooje ko daqaar daqaar yi ñuy jaay ci marché nga def ko saafara di ko naan mais daqaar ji bu mu weex bu baax nag na nekk rek ndax olof soo ko ne wutal daqaar rek dafay dem jëmb ko bu buy naan di gaññ non non li ñuy wax saf safóor bu mu saf lool lool lool lool mais bu mu lewet lool lool na yem rek voilà nga di ko def di ko naan boo ci xase ba naan benn litre yow yàlla mën na laa musal ci kàttanam bépp feebar boo xam ne dañuy tiim di la yërëm yàlla mën na la cee musal waaw xeetu feebar yi nga xam ne dañ naan diw dafa feebar boo demee ñenn ñi duñ ko mën a xool ñenn ñi bu ñu génnee di jooy feebar boobu ku ko def loolu yàlla dana la ci musal yàlla na ci yàlla def barke ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, muy benn bii ma waxaat mooy bii moom bee nag sëriñ Babacar si moo ko waxoon ñoom sëriñ Cheikh kon sëriñ Cheikh wax ñu ko ñun tamit ñu wax ko waa réew mi kon képp ku ko dégg di ko jëfandikoo ci barke sëriñ Babacar si ak ku mën ci doon soo ko jëfandikoo yàlla na la ci yàlla defal lu kawe sa njort ba nga ni man de amoon naa feebar sax mais bi ma ko laalee yëgatuma ko mu dem ba faw bii nag benn jaamu bu yàlla moom moo ko andi bépp doomu aadama boo xam ni ba tey wax na lii ma bëgg a wax bépp feebar bu la mënti dal ci àdduna wala boog maanaam nga dégg ni feebar sàngam am na ak lu feebar bi garaaw garaaw garaaw garaaw yàlla dana la musal ci feebar boobu mooy baat yi allahu xayyun samadun maanaam nag waxuma samadu de ku nekk xam na ne allahu xayyu samadu am na mais dama ne leen allahu gannaaw ba nga ne bismillahi rahmaani rahim ba pare nga ne allahu xayyun samadun baaqi baaqi bu la neexee nga def fi waaw bu la neexee nga bañ fa def waaw باقي باغنا وباقي باغنا سمد وباقي سبحانه ذو كنف وواق سبحانه ذو كنف وواق ونحن في كنفه almanii xam nga kanaf ci arab mooy dugg nañ ci suñu xaw ma bonkoor ngeen koy wax boo xam ni ku dix huit mille ton ku am poids boobu ci ci diisaay boo ko ci dóoree mu bonde waaw du dal mukk su ko defee nag ni dugg naa ci biir kaaraangeeg yàlla min kulli sharrin wa adan من كل شر وأذى شنيع وأذى شنيع مستمسكين بالغياث أحمد خير الأنام منتهى ومبتدى منتهى ومبتدى looge loolu lan lay tekki mm-hmm. lii ma wax ni su yàlla dogalee nga wax ko mm-hmm. fekk yaa ngi dégguñu ni xaw ma na waaja laa naka naka laa Ebola mm-hmm. nga di ko wax ak beneen feebar bu munti doon soo ko waxee yàlla dana la ci musal boo demoon fekk ngaana goo xam ni deret mi ngi loxo yaa ngi nàcc boo ko joxee loxo directement du la wàll ah, boo amee ku am tuberculose nga nekk ak moom du la bal wàll ak ku mënti doon du la wàll boo nekk koo xam ne dafa am hépatite B maanaam bu fekkee moom luy wàlle la du la wàll incha allah ak boo feebar bu mënti doon nag yépp ma waxaat ko ñiy bind suñ ko déggee te teeylu dinañ ko mën a bind ba bu ma fi jógee kenn dootul ma téléphoné di ma ko laajaat ndax xam nga man dama ñàkk jot. Mm-hmm. yenn saa yàlla xam na ko téléphone dana ma fekk foo xam ni su nee kar rek man sama fit yëppay dem ndax dana ma fekk ci diggante boo xam ne damay mel ne sax yëgatuma ni maa ngi noyyi. Mm-hmm. ngir importance bu mu am ci li may li may xool li may liir. Mm-hmm. mais téléphone na ma yàlla baal baax na lool. loola tax nag nii may waxee nu mu yéex a yéex xanaa lu waaye mën a yéex a bind ko kon su ma koy tekki ki koy dégg dina ko mën a bind ci tekkin wi. macha allah mooy bismillahi rahmaani rahim kooku yaakaar naa ne ku dib jullit daa ko mën nga ni allahu yàlla ñu ni waaw nga ni xayyun dafay dund ba faw faw amul dundam fum tàmbalee amul fu mu yem kañ faw sama dun xam nga sama dun moy ko xamni ni dañ ko yaakar ñepp ñepp ñepp yaakar ko te ku ñew lan fa yaakar da ngay fekk lu ko ëpp te du la gantu koku moy samadu samadun wa baqi wa baqi te it mo fi des gis lo ñu ni buñ la tàggee nit ñu ni diw faatu na nga bind baqi bu soobee yàlla da nga ko déggaat yow xam nga ni ku ko déggul yow waaw maanaam am na ñoo xam ne dañuy def bu ñuy jullee ba pare jàng yaa baaxi cent onze ngir yàlla may leen fan wu gudd ku koy def mag ñi nee nañu kuy def foo jullee ba pare loo yàkkamti yàkkamti jàng fa yaa baaxi yaa baaxi yaa baax yaa baax yi cent onze yàlla kese moo mën a yore fan wu gudd moo koy mayee du keneen nag fan wu gudd lu jafe jafe jafe jafe jafe la ci ñun mm-hmm. mais lu yomb yomb yomb yomb ci yalla la ta mokay maye kon ñaan koko moy ya baqi ya baqi fo foo lo yakamti yakamti nga def ko 111 ñu ni képp ku ko sax yalla mën na la may nga gudd fan gudd fan nak moy téeméeri at ak lu ca téggu bo amé téméré rek gudd nga fan mais téméré at lu jafé jafé jafé am la da nga gis nit màggat a màggat ñu limal ko mu manké téméré kon allahu yàlla xayyun aj dund la dund gu dul jeex ba mukk samadun mooy ku ñëpp yaakaar soxlaal ko te képp ku dem ku nekk la nga fa fekk maanaam la nga am ci yaakaar danga nga fa fekk lu ko ëpp foofu te yàlla du la gàntu wa baaqi te yàlla daf des ba faw faw faw du fi ma sa jóge mukk subhaanahu man de yéem na ma ci màgg gi mu màgg moom yàlla màggug yàlla yéem na ma lool lool ñu ni lu tax xaw ma fu mu tàmbalee xaw ma fu mu yem te samay maam nee nañ fi lañ ko fekk seeni maamaat nee nañ fi lañ ko fekk seeni maamaat yi maamaat nee nañ fa lañ ko fekk mbaaxam googu moom yàlla ak kawem googu ñun ñiit bu ñu jógee dañ ko fiy bàyyi suñuy sataati sataati sutaat bu ñëwee dañ fi fekk mbaa yàlla muy continuer rek kon kay subhaanahu dëgg dëgg sellug yàlla ak yëkkati koom jaaxal na ma zoo kanafin yàlla mooy boroom kiiraay goo xam ni ku fi xas ba dugg mucc nga alkanaf zoo kanafin ak lu mbir garaaw garaaw garaaw garaaw garaaw su fekkee dugg nga ci biir kanafu yàlla yow yow rëcc nga zu kanafin mooy boroomu kaaraange almanii boo xam ne dañ ko blindé kaaraange maanaam xaw ma nuñ ko tuddee bunkóor la xaw ma ngeen koy wax zu kanafin mooy boroom kaaraange ga wa waaqin tey mooy kane ga goo xam ne dafa ne dañ dàññaaral nëbbuwul da nga teg sa bët ni ma nga nee te boo doon dox mënoo fexe ba àgg ci wa nax nahnu ñun fi kanasihi ñu ngi ci biir kaaraange yàlla gi almanii boo xam ne dañ ko blindé kaaraange yàlla bu ñu blindé ñun ci lañu dugg nañ ci biir ci lan lañ ko blindé min kulli charrin ci bépp musiba boo ci xasee ba dugg am nga xel mu dal am nga sécurité sécurité ñoom jeex na wa azan te biir biir biir foofu nga dugg doo fi tiit ko la fi fekk doo fi ragal jaan ju la fi màtt jiit du la fi fekk leneen luy gaañ doomu aadama ba mën ko ba mën ko xañ sago dootu ko fa gis amu fa azan xam nga chanii wa azan chanii azan mooy lor chanii boo xam ne bu ñaaw a ñaaw a ñaaw la bon bu ñaaw te bon chanaan chanaan nee na nee doo ko fa fekk hmm. ñun day mustamsikiina ñun dañu ŋob dañu ŋëpp dañu jàpp jàpp bu dëgër bil xiyaasi ci xettal goo xam ne yàlla moo ñu ko xettali ñun xettal googu ci lañ téye kon yàllaa ngi ñuy xettali dootuñu ragal kan mooy xettalkat ba ahmada jàpp nañ ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam te képp ku jàpp ci yonent bi macha allah am nga kaaraange kóolute mucc ba faw fan àddina ak ëllëg ci alaaxira lu tax nga ni xayril anaami mooy ngën ji bindeef muntaha mooy yemukaay ba wa mubtada te mooy tàmbalikaay ba fa yonent moom boo bëggee yàlla yonent bi ci la tàmbalee ci la jeexe ñaan gu gàtt gàtt la fii la yam muntaha wa mubtada kon boo ko bëggee ñaan ñaata ñenn saa ñun la ñaata yoon nga koy nga koy wax boo xëyee suba rek boo jullee wax ko ñett yoon ñett ñett su dee jigéen ju munul jigéen joo xam dafa am ngàntal julli moom itam su xëyee rek na ko wax ñett yoon moo am ngànt na moo am ñàkk ngànt baax na bu dee góor wala muy jigéen te mu wax julli juróomam fum julle suba rek mu wax ko ñett yoon jeex na dana ko assurer ci bis bi yëpp kon allahu hayyun samadun wa baaqi subhaanahu ذو كنف وواقي ونحن في كنفه المنيع من كل شر وأذى شنيع mustamsikiina bil xiyaasi ahmada xayril anaami muntaha wa mubtada tabarakallah dëgg yàlla loolu yomb na lool kon mbokk yi benn ngoog ma indiwaat benn njëriñ njëriñ loo xam ni bépp doomu aadama bu koy wax bu dee kër goo nekk bu fa jinne nekkee dana toxu walla mu dee maa la wax loolu bu fekkee jinne juy lor la waxuma jinne ju baax de ndax jinne dafa am yoo xam ne dañu bëgg doomu aadama fas yéene ànd ak moom mais bu fekkee jinne joo xam ne dafa dafa saay-saay la mu bëgg laa caay-caaye bis bu jot nga wax ko juróom ñaari yoon moo xam guddi la wala bëccëg la su fekkee jinne ju bon ma nga fa joo xam ne dafay lor njaboot gi wala mu di fa indi jàngoro wala mu di fa indi gis nga euh, kaalidu da nga gis kër goo xam ne nit ña fa nekk wuñu da nga gis famille boo xam ne ña fa nekk juboowuñu dañuy xeexoo guddeeg bëccëg jinne ju seytaane moo ñëw ya-, yàq fa waaw ñu naan diwoo ko liggéey ak nangam ak nangam man sama doom ji su fekkee nag yaayam am na dinaan sama wujj wee te fekk xaraam jinne mooy def loolu léegi nag bu fekkee yaa ngi wax baat yii bu fa jinne bu saay-saay nekkee di yàq benn jinne ji dana toxu wala yàlla yebal benn ci rawxaani yoone yi wala ci kurubi yoone yi ndax xam nga rawxaan mooy lan mooy jinne yi wali yuy jinne yi ndax wax naa leen ni jinne du am nu boo jinne du nekk yonent wali yu jinne yooyu nga xam ne tey bu jinne doon am yonent mën nañoo nekk mën nañu am nubuwa wa la ñu tudde ar ruuxaan ya ñooñu nag la tax ñu tudde leen ruuxaan ñoom jinne lañu am nañu jinne yoo xam ne ay seytaane lañu dañuy yàqal doomu aadama am na seytaane itam ndax seytaane ak jinne ñoom ñaar bokkuñu mm-hmm. mais nag kenn mënu leen a xàmmee ku dul waliyu wala jinne ci boppam jinne ci boppam moom dana xam ni kee du jinne cheytaane la mais nit moom xamu ci moom jinne lay wax rek wala cheytaan léegi nag rawxaan yooyu ñoom ñooy aar doomu aadama boo xam ni cheytaane jinne moo bëgg ñëw yàqal ko rawxaan boobu mooy ñëw xeex ak moom dàq ko te yow nit ki yëgootinoo ñoom itam loolu seen jaamu yàlla la léegi nag bu yàlla dogalee nga bëgg a mucc ci loolu da nga naan amantu billahi waxdahu wa kafartu bil jubti wa taaxooti wa kafartu bil jubti wa taaxooti wastamsaktu bil urwati al wusqa alladi lan fisaama laha aw allati بالعروة الوسطى التي لا انفصام لها والله سميع عليم بسم الله ذي شأن عظيم وبرهان شديد وسلطان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu hmm. ah, gis nga kii boo xëyee suba wala su fekkee yàllaa ngi dogal munoo ko jàng ñu bindal la ko ñeent wala ñu bindal la ko juróom benn rek doy na mais xam nga nit dafa ëpp hmm. buñ la ko bindalee juróomi téere benn bu nekk nga suul ko ci koñu kër gi hmm. benn bu nekk nga suul ko ci koñu kër gi beneen bi nga suul ko ci diggu kër gi gis nga ko fekkee koo xam ne xëy na tabax nañ biir kër gi ba pare mënu fa toj mm-hmm. kër yi bu fekkee kër gi yàlla dogal na mën na gas ci bitti mm-hmm. mu sës ci miir bi te am na suuf mu gas ci miir bi def ko ci ñeenti koñ yi kër gi waaw lekk defee de téere yooyu séq kër gi mm-hmm. beneen bi nag mu toj diggu kër gi suul ko ci gis nga kër googu moom bu soobee yàlla bépp cheytaane bu yàq dootu fa du ci kàttanu yàlla wala jinne joo xam ne dafa saay-saay ma waxaat ko amantu billahi waxdahu wa kafartu bil jubti wa taaxuuti wa kafartu bil jubti wa taaxuuti wastamsaktu bil urwati al wusqa alladi لا انفصام لها والله سميع عليم بسم الله ذي شأن عظيم وبرهان شديد وسلطان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تبارك الله بو يالا دوغالي بو باري نك nga daal di bind sóoratu qadri bu la neexee nga daal di bind ci maanaam kii moom xam naa ne sax du jar ñu di ko wax alhamdulillah Euh, kon defe naa loola moom euh, xëy na mbind ko indi mais du luñ bind waxeef ko kon lii moom dama koy daal rek bàyyi noonu waaw bind la waaw maanaam kii maanaam pour wax ko ca dafa dañ koy juum ba bindaale ko mais du lu ñuy yëkkati ca kaw ci kàttanu yàlla euh, mbokk yi maa ngi indi Ben ñaan go xamni ni ñaan gu am solo la euh, bu yalla dogalee nit ki muy ñaan yalla mu may ko fan wu gudd wu and ak ak wërsek wu bare wu and ak teranga wërsek wu bare wu and ak teranga ah, yàlla dana ko may fan gudd incha allah yàlla dana ko may wér yàlla dina ko may itam teraanga muy bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim kam min fi'atin غليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله wallahu maa sabirina nga gin nga bind ko cent fois kii njaq la boo xam ne su fekkee yaa ngi koy sangoo di ko sangoo di ko naan da nga mucc soo bëggee falu danga nga falu dinaa leen wax nag ku koy def te bëgg a falu nan ngay def dégg nga de dama ne da ngay bind bismillahi rahmaani rahimi allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim benn nga bind kam min fiatin qalilatin qalabat fiatan kathiratan bi idnillahi wallahu maa saabirina téeméeri yoon mu nga ca sóoratu baqara nga bind xasbuna allahu wa nicmal wakiilu nga bind ko téeméeri yoon kooku defe naa ni sénégalais boo dégg من حسبنا الله ونعم الوكيل تيميريون بو فا جوغي قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير تيميريون دنگا دي داماني قوله الحق الحق قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير تيميريون nga لقد جاءكم رسول رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم التيميريون سوف soo fa ورد الله الذين كفروا لقد جاءكم ممكن خمنا من سورة بقرة أه، أستغفر الله أه، براءة براءة سورة التوبة سكر فين قدر بند ورد الله الذين كفروا بغيثهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين ختالا وكان الله قويا عزيزا تيميريا كوكو كوكو ديغ داغا خامني ميغي سوره الاحزاب سورة الأحزاب واو ورد الله الذين كفروا بغيثهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين خطالا وكان الله قويا عزيزا تيميريون غداد بن نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين تيميريون وأسقاكم وأسقيكم ولا وأسقاكم وأسقيناكم واي وأسقيناكم واي ماء فراتا تيميريون وأسقيناكم ماء فراتا موي ما جوخ لين دوخ مو نيه نين دي نان بوغين نيوي اجنا bu ngeen di tàqamti ko mu neex lool sedd guyu lool te du la gaañ wa asqaynaakum ma an furaatan téeméeri yoon nga tegaat ca inna lil muttaqiina mafaasan téeméeri yoon inna lil muttaqiina mafaasan téeméeri yoon euh, nga teg ca xul huwa allahu ahadun allahu samadu lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan ahadun téeméeri yoon nga bindaat laa xawla wala quwata illa billahi al aliyi al azimi téeméeri yoon nga bind subbooxun qudduusun rabbul malaikati wa ruux téeméeri yoon kooka booy sujoot ci alquran sopp nañu nga su nga wax lii ndax am na malaayika yoo xam ne loolu rek la ñuy sàbbaale yàlla hmm. subbooxun xudduusun rabbul malaayikati wa ruux am na ñoo xam ne dañuy jàng alxuraan ba àgg ci sujjóot hmm. da ngay gis dañuy këpp rek kii mooy boo sujjootee ci alxuraan lii nga war a wax hmm. su ko defee nag téeméeri yoon ah, nga ne azamtu billahi azamtu billahi téeméeri yoon azamtu billahi yaa ngi ayin ak taa tànk taa boo xam ne dañ ko tomb ak miimun ak taa un azamtu billahi moom ku xam ne ne um, yomb naa bind téeméeri yoon nga daal bind amantu billahi amantu billahi téeméeri yoon tawakkaltu ala yoon xasbiyallaahu xasbiyallaahu téeméeri yoon allahu akbar allahu akbar téeméeri yoon laa ilaha illallah kon yaakaar naa ni téeméer yi képp ku ko bind def ko njaq di ci sangu di ci naan hmm. ako jafe def nag xam nga ñaata fan nga koy sangoo quatorze jours su fekkee def nga ko nii quatorze jours nga naan ko benn mooy yàlla miy maye gudd fan dina la ko may deuxième yàlla miy maye wér dina la ko may troisième yàlla miy maye sa dana la ko may ba doo ñee sa benn nawle kon assurance la bu fekkee nag yàlla dogal na muy ku bëgg a falu bëgg nekk buur wala mu bëgg am ndomba tànk ndomba tànk àddina su ko bindee ba pare xam nga fu mu koy sangoo hmm. dafay wut ay ah, ki sees ñaari sees ñu dëgër wala ñett wala juróom-ñaari sees hmm. tegele leen wala mu tegele lee tegele lee hmm. buy sangu ci lay toog ci seen kaw lay sangu su ci sangoo ba pare fukki fan ñeent sees yooyu daf koy sarxe mhm. maa la wax loolu kenn mënu laa tee nekk kilifa kenn mënu la ñàkk force waxaat dama ne wax ni bu fekkee yàlla dogal ne téeméer téeméer yi ma bind yàlla dogal waa ji bind ko waaw mu ko bindee mu sangoo ko fukki fan ak ñeent waaw di ci naan di ci naan kenn mënu koo tee gudd fan ci kàttanu yàlla moo koy maye kenn mënu koo tee am wërsëg mhm. te dina wér te du ñee ay moroomam bu fekkee nag def na ko euh, téeméer téeméer yooyu fekkee léegi moom falu rek la bëgg moom du ci naan bu fekkee falu rek rek rek la bëgg du ci naan dafay wut lu mat juróom-ñaari seize juróom-ñaari seize xëy na su ko tegalee dana xaw a kawe léegi bu tegee yi teg yi bu ko neexee buy sangu mm-hmm. mu taxaw teg tànkam bii teg tànkam bi sees yu dëgër nag. comme seesu kii. sees yu sutante waaw comme sees yu. sees euh, am ah. non non sees yu ñuy jaay yu yu. waaw sees plastique yu plastique waaw. yooyu ñuy teg noonu di ko luwee. mu ut ci juróom-ñaar. teg ñett fii teg ñett fii bu ko neexee bu teg juróom-ñaar ñaata lay doon. ñett ñett waaw ñett ñett teg ci digg bi benn. teg ci ndab li. bu defee ñett ñett teg tànkam fii teg tànkam fi benn bi mu teg ci ndab li di ci sangu bu ko sangoo fukki fan ak ñeent su paree sees yooyu mu sarxe ko tegle yëpp dañuy bañ mu kawe te buñ tegle yëpp mën naa daanu waaw su ko defee da ngay teg benn fii teg benn fii teg benn fi su ko defee nga def noonu waaw góore waay ndax mi ngi mel na doomu aadama am na loo xam ne suy wax loolu la ñu tudde xahwa xahwa mm-hmm. am na ñoo xam ne mooy sàngara mm-hmm. waaw mais mooy kafe ndax xahwa euh, muy sàng mooy café mm-hmm. soo liwee boo ko naanee sa liw dem boo tàyyeelee soo ko naanee sawar sawar waaw boo waxee ba sonnit boo ci mosee ab guux da ngay sawar mais nag dañuy wax ne ku mel noonu boo dendee kaalidu gay na ko sore. waaw waaw su ko defee. dama wax ni lii. ku yàlla dogal mu def ko. li wóor te wóor gudd fan. ak wér. ak wërsëg. lu jafe jafe jafe jafe la. mais téeméer yi ku ko bind. yàlla dana la ko defal boo fekkee danga nga bëgg a falu. moom fu cangaay li fukki fan ñeent la waaw mais boo bëggee falu doo ci naan da ciy sangu rek su fekkee da ngaa bëgg wér nag danga ciy naan di sangu da nga am wér danga nga am wërsëg bi daal mooy waaw falu bi moom doo naan ndax nguur kenn du ko naan hmm. nguur ku ko naan bew hmm. ñi nga gis ñu falu yëpp yëpp yëpp yëpp hmm. dañoo bew te ku bew alku امين يا ربي ا اسكو جارنا وخات ما كون ماغي كوي وخات ماني بسم الله الرحمن الرحيم ا جيسنغا كم من فئه بي بي رك كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين جيسنغا موم بات بي كسي كسي كسي بوكو بيندلي ني muy dem France. Mm. wala muy dem Amérique wala muy dem biti réew. Mm. nga bindal ko ko téeméeri yoon. defal ko ko kii cawdi bu mel na baaraam. waaw maanaam téere bi dafay gudd comme ni baaraam di gudde mu takk ko ci ci biir tubayam mu lang di tiim sàmba Jaañ bi ko kenn du ko yóbbu kaso hmm? mukk ci àddina ah, sama waajaa nga bitim réew tëj nañ ko kaso hmm. jamais doo ko dégg man na ku ma koy defal dama naan bis boo ku ci képp ku ko def boo jaayee dorog yal na toj waaw boo jaayee dorog rek yàlla na yàlla toj téere bi ñu jàpp la toroxal la mais li fekk jaayuloo dorog hmm. ala kulli xaal yàlla dana la sàmm doo mës a dégg ñu ni waaj a tëj nañ ko moom rek xam nga fii diggante jaaluuta la ak taaluuta moom la alquran di tudd hmm. ndax Samuel ab yonent la donte alxuraan indiwu ko mais nabiyun min anbiyaai bani israil moom Samuel moo nekkoon ak jaaluuta maanaam taaluuta taaluuta mooy ku baax ki jaaluuta mooy Goliyaad mu ni ko moom Samuel yonent la mu ni ko gis nga mbooloo mi li ñuy bare bare bare ñu tuuti ñoo la ci gëm ñu ci ëpp seen intérêt lañ gëm boo demee ci kër sëriñ si da nga fay gis mm-hmm. am na ñoo xam ne lañ naan sëriñ bi sëriñ bi gëmuñu sëriñ bi de intérêt kese lañ fa moo leen fa yóbbu ak ko moo bari sax bi mu ko waxee nag Samuel samwil affaire boobu jaaxal ko xam euh, taaluwuta mu ne ko lii ma lay wax nii la gaañu ñu ëpp gëmuñu la dinaa ñaan yàlla mu examen yi gaañi ba nga mën a xàmmee ñi la gëm ak ñi la gëmul mu ne ku nu may def mu ne da oote xare soo ootee xare ne nañu dem xeex ak Goliath te mooy jaaluuta bi am jiimun bi mooy ku bon ki bi am taaun gi mooy ku baax ki léegi ba ñu àggee jaaluuta li mu yore ci armée ëpp na fukki junniy doomu aadama maa la ko wax xam nga ñi ñaata lañu trois cent treize trois cent treize yooyu ba ñu demee war a xeexi lim bi daal di yokk muy trois cent quatorze xam nga lu tax yent yàlla daawuda mi ngi am dix-huit ans baayam mi ngi tudd Aysa hmm. Aysa boobu nag kenn du ko binde siinun bu tooy mais dañ koy binde saadun ayn aysa la papa yi yonent yàlla daawuda tudd papaam nag daa di ni daawuda demal ca jur ga boo demee ngay sàmmal ma jur ga ñun dañuy xeexi daawuda papa ji dem mu dab ko ni ko waaw papa lu tax man ngeen di dem lu toll na yoonu yàlla ngeen may yebal yéen ngeen xeexi man may toog xale bu am 18 ans xale dafay am jom xam nga léegi laay wax ni fiqu sunna maanaam comme Seydi Saabiq nga xam ne moo liggéey fiqu sunna déggloo ma ni maanaam booy xool ci kooku ngay xool ndax dañ ni baabul ijtihaad dañ ko tëj mu ni déedéet baabul ijtihaad mas maftuux wa hum rijaal wa naxnu rijaal maanaam gëstu ci xel ak luy avancer xam-xam ci sa walu diine ñom ñu ni tëj nañu amatul léegi ñi xalaatoon demb rek nañu am ci yoolu mu ni dedet jamais ñoña ay goor lañu di xalaat ñun itam ay goor lañu di xalaat babul babul ijtihaad ken tëju ko su ko defee loolu mooy la ak jom bul nangu kenn tënkal la sa xel fii dëgg la léegi daawuda papaam ni ko ay ayca bismillah aysa ni ko ay ayca bañ demee ndekete daawuda moomu moo nar a rey Goliath ba mu àggee ñu ni waaw yéen kee ngeen nar a xeexal am na fukki junni ci ay doomu aadama yoo xam ne ay ay ay ay ay soldaar lañu yéen amu leen lu dul 313 daawuda ñëw moo ko mottilil 314 loola tax ndax bu dee 313 gaa ñu ne mooy asmaaw ahlu badr mais al awnu min allahi mooy mooy 313 léegi nag bi daawuda ñëwee daal di ànd ak armée bi xam nga lu ñu tuddee man janiix ci arab man janiix mooy mbaq mbaq yooyu nga xam ne da nga ciy def benn xeer di ko wëndeel boo ko wëndeelee ba mu xiir nga bàyyi benn catli benn catli dem loolu mooy man janiix daawudu daal di wut benn man janiir ba ñu demee ba xeex bi ba xeex bi takkarnaase li tax nag aay bii ñëw dañu ni waaw yéen tee ngeen a toog ndax ah jaaloo tan saay-saay la te armeem ba bare na samwil ni leen borom bi nee kam min fiatin qalilatin bare na kuréel bu tuuti xalabat fiatan kasiratan ñu not kurel bu reey reey bare doole lool bi bismillahi wallahu ma sabirin gis nga loolu bu ko sénégal gëmoon fuñ footballé gagné ma la wax غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين أها غاني نك بن لولو نيكون بارك غاني نون دون سي كونتي نون خام غلو كونتي سنجم نغم سونو فوا اك سونو نجامبار اك سونو اولتي يونتي سين بارك li ñu wax ni américain japp nañ ku mu dajel moo la war a man ñoom li ñu def ci seen bopp mooy ñun ñoo war a xam nga loolu mooy lan da ngay dindi complexe doomu aadama saa su xasee ba dindi complexe ci boppam kum mu japp ni moom kenn gëmu ko kenn ëpp ko daraja lu mu dugg rek am ndam aha naka ñu àgg rek daawuda yàlla jox na ko kàttan boo xam ne booba suleymaan moy papa souleyman bim amé 18 ans la def jambar gogo kam min fi'atin atin khalabat kasa fi wala ma sabirin khol souleyman fay ko. souleyman itam bim amé num tudeti 18 ans la jàjjanti papam papam dadi wara atte xamul numuy atte xale bi ni ko papa defal ni yàlla ñëw fa amna souleyman wa kunna atayna hukman wa ilman wa saxarna maa al jibaala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin kon nak doom ju nekk def la la baayam daan def jig na ko léegi mu jël euh, xeer woo xam ni fukki ponkal ak juróom benn wala fukki ponkal ak juróom ñaar ñoo ko war a àttan daawuda moom kenn mu def ko ci mbaq gi tawi ko wëndee la wëndee la wëndee la wëndee ba mu xiir hmm. rek mu bàyyi ko maanaam fekk na kooku dafa amoon giir mom mom mom mom mom jaaluuta dafa amone giir jën nga bi baye xeer bi bi giir bi xeer wi ñëwee bi ne ci giir bi tal la giir bi toj ñamu tasoon yëpp deret ji dafa tasaro ci seen kaw ponkal ma daam te min fa'atin xaalilatin ghalaban fee feetan bismillahi wallahu maa saabirina aya bobu nak mom la lay wax ni kep ku dem bitim rew nga bindal ko ko temer yon nga defal ko ko téere bu sewee nii caw di uh-huh. mu dugal ko ci suufu tubayam hmm. kooka ci boppam doo mës a dégg ñu nit tëj nañ ko ci réew wala refoulé nañ ko jamais kenn du ko refoulé am na boo xam nag dama ko bañ a wax hmm. bu boo ko boole moom refoulé moom kenn du la ko def mais kooku nag dama koy jaay ah, waaw waaw kooku moom ala ah. kulli xaal dama koy jaay waaw kenn du la refoulé gis nga mbaa yi du jëm déedéet lim an la ma la dama li ma lay ñaanal dama ne la képp ku may ñaanal boo mooyee yàlla yàlla na yàlla na yàlla na yàqu. yàlla na yàqu maanaam dem di tooñ tubaab yi xam nga sénégalais yi. dëgg-dëgg mm-hmm. ñun waa réew mi. Mm-hmm. ak ñi nga xam ne ñoom la yàlla jox état bi war nañuy waxtaan ak suñu nitu réew. Mm-hmm. ndax ñi ngi yàqal seen bopp. dem mais mooy julli sax warul def loolu dem takk tubaab. Hmm. ngir bëgg am kayit. boo ko takkee ba am kayit fase tubaab bi. yow yow yow intérêt boobu yàqal nga sa téeméeri morom. léegi tey fi mu nekk nii tubaab yu jigéen yi nekk France. Hmm. ku ci sa mbokk di dugg ci tub ci ci ci ci nit ku ñuul. danaan la yoo xamuloo nit ñu ñuul ñi. seen int kayit rek tax ñu topp la. bis bu ñu amee kayit fase la. fase la la. te mooy gis nga loolu sharia daf ko bañ. gis nga boo gisee ñuy wax nikaaul muta waaw nikaaul muta daganul mooy nikaaul muta waaw dafa xaraam ndax sharia nee na bu fekkee da ngay takk ndaw si ngir intérêt sharia buñ ko yëgee dañ koy tas bu fekkee da nga ni ndaw si dama koy takk bu ñu àggee ci béréb sàngam ma fase ko sharia nan dañ koy dañ koy tas takk li li sharia bëgg maa ngi takk mais dama fas yéene yore ba dee di ñëw lii tas nag bu ñëwee ci diggante bi nga xam ne tas googu yow préparé woo ko woon waajoo ko woon dafa la bett ci diggante bi ñoo xam ne kii pexe amul hmm. dégg nga su ko defee nag loola moo taxoon kam min fiatin qalilatin galabat fiatan kasiratan bi isnillahi wallahu maa sabirin mais waxuñu ñu bindal la ko nga dem ci réew ma di def musiba ku def musiba téere bi yàqu mais su fekkee da nga fa dem rek jub fas yéene rek loo tedde fas yéene doo triande kenn doo dugg itam ci njaayum dorog yàlla mën na laa musal dégg nga xanaa kon boobu ma ne bii kese kese kese doyoon na lépp léegi ma wax ni képp ku ko bind téeméeri yoon moom aaye bii dama la wax ni yéena ma wax ni pour naa ko waxaat nga ni lan mooy ku bëgg a falu nga ni lan mooy ku bëgg am tedd nga tedd nga bi yàlla dina la may gudd fan ci kàttanam te danga am wér te doo ñee sa benn moroom muy boo ne bismillahi rahmaani rahim kam min fi'atin qalilatin غلبت فئة كثيرة بإسم الله والله مع الصابرين نياتا تيميريون نغنيوات حسبنا الله ونعم الوكيل خول بودي مي سورة آل عمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخذهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وتبعوا رضوان الله ولا هذو فضل عظيم حسبنا الله wax nañu ni Cheikh Abdul Xaadir al Jeylaani bokk na ci li tax mu raw góor ñi zikkar gu mu doon zikkar xasbuna allahu wa ni'mal wakiilu ci la Cheikh Abdul Xaadir al Jeylaani rawee góoru yàlla yëpp Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani bi muy ñëw Irak du ngi dëkk dëkk bu ñu tuddee Kaylaani wala Jeylaani ci wetu Iran man nga ni sax boo xoolee Cheikh Cheikh Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani nitu Iran la kañ la gane jamono mooy bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam génne àdduna ca gàddaay ga ba am euh, ñeenti téeméeri at dégg nga de ak ñeent fukki at du mooy quatre cent waaw quatre cent quarante imaamu Xasaali moo ko moo ko moo ko moo vingt ans imaam Xasaali mii ñuy tudd. moo magi Abdul khadir Jeylaani 20 ans. Abdul Xaadir Jeylaani magi Cheikh Ahmad Tidiane Chérif juróom benn téeméeri at. ak juróom ñett fukki at. waaw 680 kon Abdul khadir Jeylaani ñëw na jamono ba génn jamono. ba am juróom benn téeméeri at ba am juróom-ñetti fukk at Cheikh Ahmad Tidiane si ki Chérif doog a doog a génn doog a juddu. doog a juddu est-ce kon xam naa ñoom ñaar sorante wuñu xaw ma jegeente wuñu ñoo bokk benn maam muy al imam al xasan léegi moom laa ko doon wax ma ne ko imam xasan mooy seen maam al xuseyn li ñu xam ci histoire mooy bàyyiwul doom li tax nag as shariful xasan yi ndax sharif daf ci am façon ñoom sharif yi xam nañu ko am na as sharifil fatimi yi ñoo jóge ci Seydina Aliyun ak ci Fatimatu bintu Muhammad alayhi salaatu wasalaam léegi nag léegi comme dañu wax ne Seydina Aliyun bi Fatima bint Mouhamad alayhi salaatu wasalaam dix neuf ans la am faatu Seydina Aliyun am trente ans kon takkaat na fi soxna doom yooyu ñu tuddee ko umul baniin doom yooyu bu fekkee judd nañu dañuy nekk shérif kooku duñu bokk ci shériful fatimi yi ñooñu la ñu tuddee ak shérifu daymaani yi su ko defee kon côté shérif bële macha allah moo gën a na ma yàlla baal ngeen baal ma nag moo gën a dëgër. moo gën a dëgër waaw shérif yu jógee Seydina Aliyun كون ما كوم واك الشيخ سعد بو واك الشيخ سعد بو الشريف الحسني لا علي يونيسين مام اك فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم اك واك الشيخ احمد التجاني الشريف سوكو دافي نا كون كينن كو نيك كو ني شريف لا بو كو ويدل اك شريفم مي دا غاي واخ نيكو فان غا تيالا لا واو جانغوما استوار مانام waxtaan ma ci histoire damay waxtaan ci kii gaañ gaañ <laughs> ñu ñoo bëgg yow waaw mm-hmm. xasbana mm-hmm. xasbuna allahu wa ni'mal mm-hmm. nga kan moo njëkk njëkk wax ci àdduna mm. naa fii nii lay ama baadu mm. ki di discours ba mu yàgg mu ne ama baadu yont yàlla daawuda moo ko njëkk a wax ndax dafa amoon éloquence trop mm. total ne hasbuna allah wa ni'mal wakilu ku ko ñëk wax mooy yent yàlla ibrahim bañ ko bëggé sànni ca kaaba ca ca safara wa khulna ya yaa naaru bardan wa salaman ala ibrahim xam nga lu la doon wax hasbuna allah wa ni'mal wakilu hasbuna allah wa ni'mal wakilu hasbuna allah wa ni'mal wakilu hasbuna allah wa ni'mal wakilu ci lolu nak lañ wax ni ci la saydnaa jili bok na ci nak ak yeneen maye yàlla ndax jii li mën naa ci waxtaan lu bare mais bokk na ci li tax mu raw góoru yàlla ci xasbunallahu wa ni'mal wakil liggéey na ci moom Seydina Abdul Xaadir Jeylaani lu ci benn góor mos la liggéey Seydina Abdul Xaadir Jeylaani gis nga bu buy waaraate dafay waaraate ba mujj mu toog ci kaw jaww ji yàlla wallahi dara du ko laal moom Seydina Abdul Xaadir Jeylaani muy ferankalaayu ci jaww ji di waaraate est-ce que est-ce que est-ce que gisagun nga kenn ku weddi Seydina Abdul Xaadir Jeylaani xam loo imaam Ibnu Taymi Ibnu Taymi mi ñuy wax ni mm-hmm. gis naa mu bind ci Abdul Xaadir Jeylaani lu nekk di ko tagg. Mm-hmm. billaahi yàlla xam ne ko di ko tagg. Mm-hmm. kon Ibnu Taymi am na sëriñ. ndax boo demee da ngay wax ni Ibnu Taymi lii muy wax Seydina Abdul Xaadir Jeylaani kenn du ko wax ku dul sa sëriñ. dëgg la léegi Abdul Xaadir Jeylaani borom xam-xamu Irak ndax xam nga lu ko indi Irak euh, yaayam moo fa des ndax baayam ku ku baax la ci histoire baayam dafa daan war gaynde waaw maa la ko wax loolu bi muy war gaynde benn bis nag mu dem ci benn tefes di sangu fekk dafa bëggoon a nekk suuf yànke bi mu demee ci tefes gi sangu ba pare am lu xelam ni toq mu daal di wàññeeku pour bëgg a war gaynde gi gaynde gi bëgg koo lekk mu ni yee moom kon dafa def bàkkaar ndekete kon gaynde képp koo gis mu lekk ko rek borom bàkkaar la gaynde du lekk ko amul bàkkaar léegi mu daal di kon dafa war a delluwaat ci yàlla te li muy delluwaat ci yàlla il faut mu takk soxna bi mu takkee soxna yàlla dogal mu am ci njaboot xam nga am na ñuy bëgg na yàlla baal il faut mu andi fi nag histoire ndax dañ maa cuq damaa dugg ci ponkal moo xam ni. tabaarakallah macha allah macha allah léegi. Seydina Jiili. gaañ yi dañ bëgg a accuser soxnaam. te soxnaam arif billahi la. soxna Abdul Xaadir Jeylaani aarif billaahi la xam na ne naa Jiili aarif la est moo tax jigéen boo ko amee bu dee jigéen ju baax dafa la yéegee ci martaba yu kawee soo muñee léegi nag naa Jiili am ay gan ñiy gëstu ci wàllu xam-xam di gëstu ci wàllu xam-xam di gëstu ci wàllu xam-xam ba ca kanam am benn waay bu ni dareet agsi ni naa Jiili moom waay si dafa fase jabaram ñetti fase léegi nag mu bëgg koo takkaat te du am ba'da zawji dégg nga de léegi nag mboolem borom xam-xam yu mu dem yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp mënuñ ko koo tekkil mais nag dañ ni ko su fekkee bëgg ngaa am loolu takkaat ko sa soxna te doo am baax de zawji léegi da ngay dem ci benn béréb boo xam ni yow rek rek rek heure booba yaa fay jaamu yàlla te kenn te jaamu jaamu ge benn façon lay doon te addina bi yëpp yow rek yaa ko fay def te ci benn béréb nga koy defee. waaw waaye sa di wër boroom xam-xam yi. Mm. di wër boroom xam-xam yi di wër boroom xam yi ba benn bis waaye sa ñëw kër Seydina Abdou Khadir Jeylaani ne dana fa ñëw Seydina Jiili yëg ni dana am gan mu ni soxna si léegi dinaa am ay gan mais nag ma toggal li ma gën a bëgg dégg nga de mm-hmm. gaa ñi bëgg a bëgg bëgg a accusé ndaw si ma ne leen non ndaw si kenn du ko accusé ndaw si aarif la mm-hmm. ndax shérif yi mooy seen maam mm-hmm. te ñoom duñ def lu bon toggal ma li nga li ma gën a bëgg ndaw si toggal ko téere ndax moom gis nañu seen ji li téere yi ci lay nekk guddeeg bëccëg kon nag bu nee ndaw si damaa am gan toggal ma li ma gën a bëgg ndaw si togg téere yi waaye si nag bi mu ñëwee nag di laaj si gàgg di laaj si masala mi boroom xam-xam yi ñëw gungewaale ko ndax gis ne Seydina Seydina Abdul Xaadir Jeylaani du masa delloo tontu ci laaj amul amul benn lu doom aadama di wax dama ni ñaar ku dul dellu tontu kenn laa ci xam mooy Seydina Abdul Xaadir Jeylaani bu ñaareel ba boroom bakkan buy xëy di daw ci suba am ruux di daw ci suba ba jant fenk te du taxaw kenn laa ci xam muy gileem dégg nga de wa ilal ibili kay fa xuli xat waa ji dama ko waxoon ni ko soo amoon sa diggu paanu xorom nga jox ko Gilem, Gilem gi lekk ko ba mu jeex mhm. gileem googu mën naa am weer du lekk du nant du ko wàññi dara loolu rek la gileem rek la yàlla may loolu hmm. ak it boroom ruux goo xam ne mën nga xëy ci suba di daw di daw di daw di daw di daw di daw di daw 24 heures te doo taxaw hmm. rek la ko yàlla may ah. wa ilal ibili kay fa xuli mhm. waa ji dama ne ko buñ demoon hmm. xam nga mosu àggaguma ci tafsir sax fii mm-hmm. mais ma ne ko ilal ibili kay fa xuli xat mm-hmm. yàlla loolu rek kay fa xuli xat demal nga xooli gileem mm-hmm. benn keneen ku laaj moom laa xamagun ci àddina ku ñuy laaj ab laaj te amu ca tontu amul muy abd Seydina Abdul Xaadir Jeylaani xanaa ak sama turandoo ndax Seydina sama turandoo laajoon nañu ko Muhammadul Xaatimi dafa waxoon benn way gaañu sax dañ ko gis jawahirul maani ma ne leen non ki cheikh na Tijaani wayu waxu ko mais Mouhamadul Xaatimi moo ko wax te mooy tatahar bi ma il xaybi in kunta saa sirrin wa ila tayaman bi saidi wa bi saxri fa qadim imaman kunta anta imam wa sallu salaatul fajri fi awlil asr wa hada salaatul aarifina bi rabbihim wa in kunta minhum fandaxil bahra fi lbahri kuñ ko mos laaj borom xam-xam bu ñëw bu ñu la ko laajee doo ko man Cheikh na Tidiane moo ñëw fekk tekki ko. Mhm. mais nag tey ki ma yëkkati mooy Seydina Jiili. Mhm. Seydina Jiili ñëw. ak ganam yi ak laajam bu rëy boobu mu nar koo tontu ñu ne ah kon nag na na añ bi neex. Hmm. ndeke añ bi téere la. Hmm. <laughs> Hmm. léegi. borom xam-xam yëpp ñëw gan gi daal di agsi bi mu agsee Seydina Jiili bi mu ne jàkk. la ruham yegni ki bu ni won yalla lakkal ma yont yalla musa sax yalla lak manam ci waxin rek hmm. de lol mom du am mais ci waxin hmm. borom xam-xam yeb aksi hmm. muni mom dal dafa am gag-gag ndax dem na ci luma téméri borom xam-xam mais ken xam mënu ko tek muni ko lan la muni ko man dama fase sama jabar ñetti fase léegi nag ma bëgg koo takk te duma ko takk ci baada zawji dem naa ci boroom xam-xam yi nee nañ ma daal il faut ma jaamu yàlla jaamu yàlla goo xam ne àddina bi yëpp yëpp yëpp man kese maa koy def ci heure boobu keneen du ko fa def man rek te it ci benn béréb laa koy defee te béréb ba ma koy def man kese kese maa ko fay def tëm waaw akbar jili ni ko jàkk mu ni groupe sukk mu ni ko da ngay dem màkka boo demee ca kaaba gu tedd ga nga xool bu fa kenn nekkul yow rek nga jóg di tawaafu xam nga tawaf jaamu yàlla la. loolu de kenn du ko fa def nag. te moom rek ko fay def keroog. ci àddina bi yëpp moom rek ko fay def. waxtu woowu moom rek ko fay def. moom rek ko fay def. sayt jaaraama sëy naa ci. maa la ko wax waaw waay jële borom waay. macha allah. laaw nuru sa borom xam-xam yëpp. net groupe. nangu nag ni Seydina jili huwa sultanul awliya. maa la ko wax. est-ce que. laa ko war. kooku dama lay wax ni. xasbunallahu. wa ni'mal wakiilu. loola ci la Seydina Jiili rawee ñu bare ci ci ci ci ci góor yàlla yi ci sikkar gu bare gum ko sikkar amna sax yeneen ak yeneen ak yeneen yo xam sax duma ko fi wax ci ci ci sayyidina jili ndax kon bu dafay jël histoire bi jëm ci bobu côté mais alladhina qala lahum an-nas inna an-nas qad jamaa lakum fakhdhum fazaduhum imanan lola jili ci lañ wax ni ben alladhina qala lahum inna an-nas ben nas bi ñom Abu sufyan la ñu ni ko ñoom Abu Sufyaan ña nga daje Makka léegi yéen jullit yi yéen waa waa waa waa waa mhm. su ngeen demee foofa Xuraysh mhm. am nañ doole lool dañ leen di rey faagaagal ma ngeen jeex mhm. ñu ni ko ñun yàlla doy nañu képp kuy zikkar xasbunallahu wa ni'mal wakiilu dafay tàggat sa ruuxu ba daf lay sawarloo ci jaamu yàlla Seydina Ibrahim مودون واخ حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ني جيل مو كونتيني رك ني سان كو سي سفرو يالا ني يا نار كوني بردان وسلاما على ابراهيم سفرو سيد غوي مو نيكو سفرو نانغا سيد تبول غان ابراهيم ndax bu seddon amna sedd yu ray nit kon manon na sedd pire ba bu fa duggé mu glacé mais dafa ne ko nanga sedd mais bu ko gañ motax hasbunallahu wa ni'mal wakiilu bépp sëriñ bu ko mënul bu ko mënul dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ci xeex ci baatin hmm? maa la wax loolu maanaam sëriñ moom ak sëriñ bu mu mënti doon hmm. bala ngaa mën a rëcc xeex ci baatin nga xam ni kenn du la mënal ci tus tus tus mooy da ngay xam xasbunallaahu dëgg dëgg nuñ koy liggéey metti na mais képp ku ko def ku la liggéey da nga ziyaare bàmmeelam allahu akbar xasbunallaahu ah, moom teraanga rek te maanaam dama bañ a ci jëm ci foofu mais xasbunallaahu boobu ñu waxoon ni wa ni'mal wakiilu yaa ngi koy bind téeméeri yoon moom cangaay gi ndax dama laa wax ni kam min fi'atin xalilatin xalabat fi'atin kasin bi isnillah wala maa sabirina téeméer ca sooratu baqara xasbunallaahu wa ni'mal wakiilu téeméer yoon qawluhu alxaqu wa lahu almulk xam nga gaañ dañ koy def sax xaatim yawma yanfaxu fi suuri aalimul xaybi wa shahaada wa huwa alxakimul xabiir téeméeri yoon laxat jaakum rasulun ba mu jeex téeméeri yoon xasbiya allahu wa nicmal wakiil waaw huwa rabbul arsil azim téeméeri yoon warada allahu alladina kafaru bi gaysihim aaya bu day waar wallahi yàlla xam na ko ma ngi ci suratul ahzab deng nga ay ñu mujjé yu ñu mujjé gëstu bi ñi bi ñi bi ñi trouvé alcorane ci la bok euh na baña dugg foofu warada allahu lazina kafaru bi khayrin lam yanaalu lam yanaalu xeyran wa kafa al mumin khitala wa kana khawin aziza temer yon nasrun min allah wa fathun qaribun wa al muminina temer yon وأسقيناكم ماء فراتا تيميريون إن للمتقين مفازا تيميريون قل هو الله أحد بمجيخ تيميريون أ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تيميريون سبوح قدوس رب الملائكة والروح تيميريون مهناني سبوح قدوس mom la ñuy sujjootele alquran tay boy jàng alquran ba ak su ci sujjoot bo ne kep ni suj subuhun xudoosun qalal min alazaimi bo demé fuqaha yu nañ nañu السجود من العزائم القرآن في في في في منهج المالي maanaam sujjoot yi ñu xam ni d'accord nañu ci ngirum imam Malik booy jàng alquran ba sujjoot fukk la ak benn min la al azaimi am na yoo xam ne doggu wuñ ci boo demee ci iqra amu fa was wasjud waqtarib xam nga was wasjud waqtarib mooy lan mooy boo sujjootee rek jege nga sa borom mais waa Maalik nag bokk loolu bokkuñu ci ni ñoom bokkuñ ci sujjoot yi fukk ak benn yi mais léegi nag am na yeneen ngir yoo xam ne wasjud waqtarib moom dañ ko ci boole waaw maanaam ila axiri yi kooku moom itam danaa ci mos a indi fukki sujjoot yeeg benn yi nga xam ni min al azaimi yooyu la ñu dogu yoo xam ni dogu wuñ ci macha allah dégg nga warada allahu lazina kafaru bi xaysim lam yanaaloo xayran wa kafa allahu mumin xitaal wa kaana laa xaman azira téeméer yoon nasrun min allahi wa fatun xaribun wa bashirul muminina téeméer yoon wa asqaynaakum ma an furaatan téeméer yoon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 li nga def ko xambu di ci sangu di ci naan soo bëggee yàlla may la gudd fan ak wér bu yàlla dogalee nga di def da nga am gudd fan da nga am wér ci kàttanu yàlla su fekkee da nga bëgg falu nekk kilifa ndax duwul ni rek nekk député wala nekk ministre wala nekk président mooy nekk tax a nekk kilifa imaamu jumaa du kilifa chef de quartier du kilifa mhm. chef de village du kilifa mhm. kooku kenn ku ci nekk kilifa la mhm. mais nag yow yaa xam fan nga natt bëgg a nekk kilifa googu nga jënd chaise yi ñuy toog juróom-ñaar nga tegale ñaar ñaar maanaam teg benn ci digg bi teg ci li ngay sangoo ba muy fukki fan ak ñeenti fan di tolloog wahaabu mayekat bi wahaabu su ko defee soo paree nga daal di jël sees yooyu ya nga doon sangoo yem nga sarxe ko boo ko neexee nga sar nga sarx ko kenn bu la neexee nga teqale ñaar ñaar ñaar ñaar sarxe ko yaa xam noo ko sarxee mais daal soo paree da nga koy sarxe man nag damay wax ni fa ca ko sarax koo xam ni boroomu mbooloo lay doon koo xam ni këram wala ko am wala nga saraxe ko ab daayira ala kulli xaal bu àndeek dogalu yàlla bu soob yàlla kenn mënu laa tee nekk kilif ci kàttanu euh, dama nekk suñu góor gu ñu daan wax gay kara dafa xam nga kara dafa ak rakkut xakiimun ak xiyaamul fiil xaatim murabba la boo xam ni kara dafa yombul ci xaatim murabba yi gën a jafeñ nga xam ne tey boo defee kara dafa ba pare def ci aajo bi doo ko sikkar da nga koy sëf rek aajo bi faju allahu nuuru samaawaati wal ard waaw kooku la ñu tuddee xaatimu kara dafa kara dafa waaw léegi nag góor googu ndeysaan nekkoon sama waaye ndax ki ñu xamale mooy alxaaji basiru jaañ grand sëriñ yal na yàlla yokk leeram te tabal ko aljana ndax dafa jóge ndar ñu ko wax alaaji gay bi mu jógee ndar ñëw waxtaan ak alaaji Sidi Ndiaye ndeysaan yi dégg naa moom itam faatu na yàlla na ko yàlla yërëm bi mu ñëwee ni ko man daal damaa am problème problème alaaji Sidi njaay ni ko sa problème boobu kenn dong dong laa ko mën a laa mën a gis ni moo ko mën a faj ci dëkk bi mu ni ko am ah, mu ni ko mooy alaaji Basiiru Jaañ kese ndax dafa bëggoon a jaay fasam mm-hmm. Sidi ni ko déedéet jarul ngay jaay sa fas gis nga yow lii nga liggéey nii El Hadj Basir kese laa gis ni moo la ci mën a jox àqam mu ñëw waxtaan ak El Hadj Basirou Diagne mu dimbale ko macha allah ba pare nag ni ko nag loolu nga loolu nga liggéey ba pare moom téye ko maanaam pour jël ko taxul ma dimbale la dama laa dimbale ngir yàlla góor gi tegu ne ko gënoo maa gore man jox naa la ko. Euh, yàlla dogal moo góor gi ñu am lu ñu waxtaan. am lu El Hadj Basirou Diagne bëgg ci moom grand sëriñ ay mbokk ay njaboot ak may dégg xam nañ ma bu baax li may wax nii lu ma wér la waaw maanaam ragaluma ci ndax xanaa lu waay dof dof El Hadj Basirou Diagne borom mbokk la ci dëkk bi ñu bari xam nañ ko ay soxnaam xam nañ ma waaw doomam bii ñuy wax Mouhamed dëkk Gibraltar fii ci sama wet maa ko doon jàngal yeen doom ya maa leen doon jàngal ki ñu may euh, euh, doomu sëñ Mansour ñu koy wax maam Malick xalem ba ñuy wax mun a Fay di Maymuna a Jaañ di doom maa ko doon jàngal kooku kay kon xanaa xam naa El Hadj Basiru Jaañ njabootam ñemewuñ maa léegi nag góor ga ni El Jaañ El Hadj Basiru Jaañ wax ko mu ni ko man di wax dëgg yàlla uhuh. mu ni El basiiru Basiru loolu de mën naa ko uhuh. wante nag man damay mag uhuh. sama toogaay duma ko mag may El Hadj Jaañ moo tax ma xamante góor gi mu ni ko ah man de wax dëgg yàlla xamante naa xale boo xam ni óolu naa ko ca loxoom set na te yaakaar naa ni su ngeen àndee dana ko man ah ñu daal di may jël xale ku ñuy wax Pape Diagne Pape Diagne moo ñëw ni ma kaay wuy sama papa waaw ma ñëw bi ma ñëwee weet ak El Hadj Basirou Diagne góor gi toog ah góor gi wax a wax ma ni ko ah xam nga nag mën naa ko yooyu daawul nekk sama kii ma ne xanaa ma xool ba xam rek yàlla dogal comme mbir ma nag waxuwul mais loolu damay wax ni moo ñu boole ñu dem a dem a dem a dem a dem a dem a dem ba ma am lu ma gis góor gi ñëw ci El Hadj Basirou Diagne ni ko bas mu ni ko ah góor mu ni ko xale bi wax na dëgg xale bi du fen wax na dëgg te booba dama ne ko nangam ak nangam dana am nangam ak nangam ak dana am nangam ak nangam dana am nangam ak nangam nii laa ko gisee wallaay ndeysaan mm-hmm. Faat Diagne Basirou mii defe naan ci Gibraltar xaw ma ak soxna mam maris sow xam nañ ko li may wax ni ñoom ki me da nañ gis ni man ku jégué laaji la woon dégg ak lamu buna bas tabarakallah ñu dem ba yalla dogal mbir ma am nono ñu ko waxe woon dara taxawu ci te yaakaar na ni mbir moomu kenn musu ko xam ci aduna waaw ndax dama ni man lepp luma sekk kilifa xana yalla ëllëg yowmal xiyaam mais du lu may nettali ci place seq nag seq nañu seq nañu rek siak ñu seq seq nañu seq nañu kooku moom jeex na su ko defee loola kooku lañu daan tuddee gay kara dafa xam nga lu ma waxoon dafa ni bas ma wax ko ci kanamu basiru Jaañ mu ni ko mu ni ko Ablaay Wàdd dana doon président donte benn fan la gaañu ni ko ha ah, mu ni billahi barke sëriñ Babacar Si ab Ablaye Wade kenn mënu ko tee doon président de la république bu Sénégal gaañ naan xanaa góor gi dafa dof billaay gay karada mu ñu ni ko wax mu ni maa la ko wax góor googu nag yàlla dafa defal mu bëggal ma boppam ni ma Cheikh dafa gaañu nag ndeysaan ni ma Cheikh Tidiane dama bëgg ñu dem ndar sama téere ya fa nekk yëpp ma jox la ko wallaay wal xuraanil azim sama téere ya fa waliisu téere laa fa yore lépp yow laa koy jox ca la ma waxoon ni ma bas fonkal xale bii wax dëgg yàlla man itam mu fonk ma teraanga bu nekk defal na ma ko wallaahi wal quraan al azim su ko defee kon ah kara dafa moomu xaatimam boobu da ko mënoon lool lool ñu tudde ko gay kara dafa kar dafa waaw xaalif ba xaatim boobu xaatim bu jafe la bu naqaree dugal ñeenti bët ñeenti bët xam nga dafa am xaatim murabba dafa am ismu aajo léegi ñanam fii ngay dugal ñeenti bët ñi ngay dugal ismu bi ñeenti bii ngay dugal aajo bi waaw su ko defee nag nga daal di koy def boo ko defee rek liggéey ko jarul nga di ko sikkar nga lem ko sof ko boo ko sikkaree nag rawate na waaw mais nag léegi comme jot amatul kooko taxoon ñu tudde ko gay kara dafa gay kara dafa moomu nag moo ne ma sëñ Cheikh xanaa xamoo ni yàlla may na ma tur yàlla woo xam ne loolu la wallaay loolu la njëkk a wax Basiiru Jaañ mu ni ko suñu neexee ñu dem ba tefes ga nga wan ma bato damay sikkar ba bato bi suux nga gis ko mu suux mu akbar wallahi lol la ko mu ni ko nañ dem ba ca ba ca dex nga hmm? damay taxaw ci tefes gi ni sikkar di sikkar di sikkar ba bato bi suux sama gor gu bax la hmm, hmm. boba li xale bu ndaw la mais sama soxna ñom xam nañ ko fu amna bis bo xamni bi mi ñew sama kër mi ngi taw mu ni ko waaw gor gi mu ni ma yow jaral nga mako mu ni ko waaw lutax mu ni yalla ma la bëggal sama bop dama la bëgg alaaji gay yal na yàlla yokk leeram ca tabal ko aljana kooku nag dafa ma daan wax ni na moytu xaatim na moytu talsam ma ne ko lu tax mu ni ma xaatim bis boo ko xasee ba miin ala kulli xaal dafa lay jëmeloo ci jëf lu bon di not doomu aadama yi di leen tàggat di lekk seen alal te loolu ma ne ko talsam mu ni ma talsam moom ndaw du ko def ndaw li mu war a liggéey mooy lan waar mooy lan yaa allahu yaa allahu wala yaa fattah waa nañ jox la ay tur ngay talsam ma ne ko ah, mu ne ma talsam mi ngi mel ne mag mu doon lekk goro di lekk goro ba màggat amatul bañ ñu utal ko muy joos muy joos goro gi pour mu ye nooy mu di ko mën a lekk mu ne ko ah, mu ni ma xale waxambaane wu am ay bañ lu muy joosi goro mu ne ko wax nga dëgg de mu ni ma nag loolu mooy talsam ma ne ko ah mu ni ma waaw mu ma ndaw ndaw ndaw ndaw du liggéey talsam ngir yakamti ndax talsam ben baat ngay wax junni ay junni taxaw mu ni wa loolu ndaw moomu ko ni ko ah, lu mu ni ma bo amé sa lire nga bëgg mu gaaw mag nga diko jox yap nu muy def ma ka ah, lire liir du lek yap mu ni ma nan la xam nga moy lan hmm. xalé bo xamni man na tok du du du du du sensé ni mu toge hmm. lu mat heures de temps hmm. te su paree du yëg dara ci yaramam loolu mag mënu ko waa xanaa ndaw yi dañoo wérul rek waaw mais ndaw moom léegi nag ndaw nga ma bëgg a wax ndaw li war a sikkar fi muy tàmbalee sikkar dañoo bëgg bu jàngee sharia ba man sharia sharia mooy jiitu boo jàngee sharia ba man sharia bu baax ba xàmmee sa sharia dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ci ngay doog dugg nag tur yàlla di sikkar mu fekk yaa ngi war am 25 ans foofu ngay amee 25 ans léegi ki lay jox tur man tey soo ñëwee ma di la jox tur man waruma laa jox tur dama lay dama lay tërbiya tàggat sa bakkan soo ñëwee dama lay jox hasbunallahu wa ni'mal wakil ma di la ko def ma di la ko jox nga di ko sikkar ñeenti waxtu maanaam juróomi waxtu yépp julli goo julli da ko def 450 hasbunallahu wa ni'mal wakilu hasbunallahu loolu rek nga nekk ko nekk ko nekk ko ba am cim at gis nga boo ci nekkee at nag bunti xol bi gis nga waliyu li muy gisee du ci di ci bët yi du ci bëti bopp bi du ci xel mi wali li muy gisee bët yi ci xol bi la nekk juróom-ñaari bët yi su ko defee nag ñu jox la nag xasbul maanaam boo ñëwee loolu lañu la war a njëkk a jox mais tam charte bi nag na fekki tam nga nga nga nga nga xam sharia bu baax ñu jox la nag tour yi nga ne xasbuna allahu wa niamal wakilu xasbuna allahu wa niam xasbi ya nag baax na mais benn góor gu ñu wax maduwa xawsullahi moom moo xool benn ñaan xasbiya allahu wa niamal wakilu niamal mawla wa niamal nasiru kooku ñëwul ci alquran سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرداء وزينة العرش لا ملجأ من الله من, من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها أسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهي حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير kooku ku yàlla baaxe la ba xamal ko ñaan gii képp ku ko def yow ma asura ci bis boobu fii ba déwén dootoo fi faatu kooku nag moom la nit ñi jaawaleeg xasbunallahu mais li ñëw ci alquran mooy xasbuna allahu wa ni'mal wakiil léegi nag nga ñëw ni man kat jàng naa dama lay nattu nag ci sharia ba nga xam ne yow xam nga sharia boo xamul sharia dama naan la kenn du dugg ci baatin te jànguloo sharia lu tax nit waruñ koo jox ngànnaay te jaarul ci quartier léegi ku dem quartier xam nu ñuy tiire kooku lañu ñu war a jox ngànnaay mu xam danger bi ci ngànnaay moo koo xam ne xamul dara ñëw rek jënd fetal yore koku ñoy dafay def jëya su ko défé nak nonu la nonu la ismullahil azam mel moy da ngay jàng sharia ba xam sharia nga ñëw aksi ma xol la buma la xolé soo ma doyul ma defal l'istikhar listixaar su ma defee listixaar ba suba ma xol yowul bantour la la wara jox mais ak lu mëna xew man lima la wara ñëk ñëk ñëk ñëk jox hasbunallahu wa ni'mal wakeel la lay ñëk jox nga diko zikkar mais nak lolu amatul léegi da ñëw ci kaalidu rek mu jox la way ndare man faala haasa nangam ak nangam nga daal di mën a liir man ko ñëw nekk sëriñ loolu mooy problème bi mais su fekkee kooku la ñu jox la ngay zikkar xasbuna allahu wa niamal wakilu xasbuna allahu wa niamal wakilu xasbuna allahu wa niamal wakilu xasbuna allahu wa niamal wakilu léegi dañu bëgg ni ngay ni ngay zikkare léegi doo zikkar a zikru bil adad dañ la sant nga def a zikru bil madad zikru bil madad mooy bi nga naan xasbunallahu wa ni'mal wakil dafa mel ne sa bunti xol dafa ubbeeku yaa ngi gis yàlla mel ne yàlla mi ngi ci sa kanam su ko defee nga naan xasbunallah li ngay zikkar ba da nga jeexal sax te doo xam ne jeexal nga wallahi yarhamukallah sa xel mi yëpp ci yàlla lay def su ko defee boobu zikkar moo yéegee nit ki làmmiñ wi tarjumaan la loolu la ko Seydil Xaaji Malik waxee boo demee ci fakiha fakiha dafa ni làmmiñ wi mooy mooy interprète xol bi xol mun la wax làmmiñay mën a wax li nga xam ne nag xol baa ngi koy tudd làmmiñ wi na koy wax. làmmiñ koy wax waaw li xol bi yéene. Mhm. maanaam lu mu la bëgg a wax. xol lépp dama ne jullit yi léegi dama koy waxtaan ak benn borom taxi. Mhm, mhm. ma ne ko dafa am lu xam ni doo ko mën a xam fooy waxe mooy lan moo gën a garaaw. jullit yi waajaluñu wala boog suñu réew boog waajaluñu doom juñu ñu sànni fan lañ ko war a yare lu tax jullit yi waajaluñ ko. dañ ko waroon a waajal léegi bu ñu desee doom boo xam ni boroom a ko jur mu sànni ko ndax doom ji deful dara euh, isa samsu euh, xam ma bi ay seen bin xuttil ban la nekk isa samsu ko wér mhm. waaw wa isa nu joomun kadara mhm. lu ko defee léegi nag su boobaa yàlla dafay laaj lan moo tax ngeen rey seen doom yi kon mhm. li jaadu mooy ki nga xam ni dafa jur doom sànni ko islam buy fii xaw ma nag yeneen réewu lislaam yi mais suñu lislaam bii dañ ko waroon a pare préparé mm-hmm. doom joo xam ne sànni nañu ko mm-hmm. ñu wutal kër goo xam ne fa la jullitee nekk mm-hmm. buñ demee ñu yar ko fa yarub islaam su demee ba màgg ñu xam ni moom amul benn responsabilité bu ko yoon teg ci juddu gi mu judd gis nga doomu njaaloo yoonam nekkul xam nga li tax sharia ni bu mu jiite dañoo bañ ñu xool ko bëtu xeebeel mais te yàqul ci julli gi dara te xamoo loolu mais gaa gaañ dañu defee ni bu juul déedéet julli gi comme yow mu julli rek ki judd ci yoon ak ki juddiwul ci yoon seen julli yëpp benn la mais nag mu jiite la nga naan si ci xel naan kii di kii di doomu njaaloo nangam loolu dafa yàq sa yoonu julli looloo tax nag ñu ba ñu ñu sib mu jiite mais jiiteem dara nekku ci kon julli ci dañ ko waroon waajal wut kër goo xam ni képp ku ñu sànni ñu jël ko jullit yi jël ko yar ko ba mu màgg ñu jàngal ko sharia jàngal ko diine xamal ko ni kët fi nga juddu dëgg la neexu la mais yow benn responsabilité waru la ci ñi way jur yi ko def ñoom la ak yàlla mais yow sa yoon nekku ci ñooñu la ñu tuddee aarif billaahi xam nga problème bi ay étape la léegi ki nga xam ne mooy zikkare xol xam ne mi ngi toog mais xol bi ak xel mi yëpp ñu ngi ci yàlla muy tudd muy li xol biy tudd mu dem a dem a dem a dem ba noppi di ko dégg alxuraan tudd na ko inna allaha yaalamu xaainatul uyun wa ma tuxfi sudur da ngay dem ba boo xoolee nit bu waxul dëgg nga xam ni waxul nga dégg wax ji xam ni waxul dëgg wallahi muy premier étape bala ngaa am fatwa foofu ngay njëkk a jaar kenn ku xëy xëy xëy am fatwa rek dof wala nga dee boo xëyee xëy gis nga yonent yi gi balañ koo am bala am wax li ñuy njëkk njëkk njëkk a def alxulum xulum ak ruya dafa am ak adxaas ci xeetu gént looloo tax waa ji li ma wax firi gént ma ne ko firi gént kenn mënu ko da nga naan taayil gént gént kenn mënu koo firi ndax li tax imaam Malik dafa gént yónni benn taalibeem ca sëriñ ba ni ko boo demee nga laajal ma ko sama gént gi mu ni ko lan la mu ni ko soo demee nga ni ko dama gént ñu dem ca baytilaayil xaraam ma nodd julli jot mbooloo mi yëpp julli waaye sa ñëw ci sëriñ ba nuyu ko ba mu àgg mu ni ko lu doon sa tànk mu ni ko man daal dama gént dem ca baytilaayil xaraam nodd mbooloo mi yëpp ñëw julli ba sëlmal affaire boobu daal jaaxal ma góor gi xool ko ni ko géntoo ko waa ji wax mu ni ko maa ko mu ni ko eh géntoo ko wala nga jog dem ba ca kanam muniko imam Malik ko gen muniko ni kay muniko so demé niko yawmal khiyam Yalla bu xiyaam yàlla buy àtte jaam ñi ba fay len ba paré bala jam ñi dugg aljana imam Malik yalla dana ko andi ba ci kanamu mbindeef yépp Yalla jox yonent bi kub kubu ngeneel ak kubu tag ak kubu -hmm. jox ko yont yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu takkal ko imam malik mu jaar ci tapis rouge bi doogu dugg aljana bañ ko waxee malik malik dafa jooy tax xoolal malik dundam yépp amul kër dafa luyee ba ni mu faatoo amul kër gum moom wala yàlla imam malik dundam yépp amul kër gum moom dafa luyee ba faatu te xoolal garaat bu rëy bi ko yàlla takkal muy kenn keneen it ñëwaat gént même gént gi imam Malik genton mu ne ko yow de da nga sàcc da nga mas a sàcc ñu yóbbu la ca jàkk ja dagg sa loxo waaja non la def sàcc ñu dagg waaw dara toxuwu ci keneen ñëwaat gént benn gént ni ko maa tam gént ko même loolu mu ne ko noo tudd mu ne ko Paul mu ne ko bala ngaa dee da nga dugg ci diine lislaam da nga tuub waaja ni ko ah mu ne ko maa la wax loolu doo dee mukk ca tuuba mhm. waaja toog ba ca kanam mu tuub tuub di julli di julli di julli ba sëlmal xel mi dem ci ni hii man de sëriñ bi nee woon na ma dana dugg ci diine lislaam loolu de xalaatuma ko woon ca yàlla foofu rek la ko yàlla reye moom waaj xool benn gént ci ñetti nit ñu bokkandoo benn gént benn te benn bokk ci sa morom lu muy tekk moo tax waa bi ma waxee ma ni ko ah yàlla nag doolu wax ni nàngam kenn mënu ko mais firi gént nag yombul dëgg la téere yi am nañu téere yu ñu def ndax gént dañ ko war a jàng gis nga gént dañ ko war a jàng ndax boo demee ca téere ba taatirul anaam am na am na bu ko gën a mag léegi am na taabir taabirul anaam am na bu ndaw am na bu mag mais dafa naan la boo géntee nangam nangam boo géntee nangam mais ci biir gént nag ban façon gént ndax gént ñetti étape la lu ñu tudd ruya dégg nga ak lu ñu tudd adxaas ruya mooy mën naa am lii nga gént moom du tox adaxaas nag mooy ko xam ni maanaam caaxaankat la defkatu bànneexu bakkanam la te buy reer dafay lekk lekk lekk lekk maanaam tey mi ngi mel rek ku reere yàpp mhm. ba suur mhm. xam nga yàpp dafa tàng bu tëddee ndax dafay mar di naan rek nga ñi gént ci njëlbeenu guddi gi mhm. loolu la ñu tuddee adaxaas ki reer ba suur fi muy njël jotagul une heure deux heures dem trois heures kooku diggante boobu addaxaas la lu mu fi gis rek addaxaas la maanaam gént seytaane la wala muy gént goo xam ni presque da nga doon xalaat li nga yendoo nga di ko xalaat ci lu juba jubadeeg wala lu ñuy netti li mu tiital la nga xalaat yooyu bu yàlla dogalee nag nga dem ba quatre jub si bu quatre jubee su boobaa lépp loo xam ne gént gis nga ko kooku ruyaa la ruyaa mooy loo xam ne danga ko gis nii côté 4 heures dem na le bi ci des boo tëddee ba guddi maanaam boo tëddee ba bët set nga def say awraat ak yooyu kooku xulum la al xulum ba tey gént la mhm. mooy li nga gént balaa yàgg yàlla dana la ko woon balaa yàgg léegi waaw léegi léegi rek nga gis ko su ko defee nag boo demee téere ba noonu la jàngalee gént maanaam affaire bi ndax problème bi amu ci lenn lu yomb lenn lu nekk dafa waroon a am sëriñ boo xam ne sëriñ bi bu ñëwee dafa lay jàngal ni la boo géntee nii même téere bi nii la ko defee mais nangam ak nangam ak nangam ndax tey ku gént xaj xaj moom ci gént du doon ngëneel bu dee jaan mën na nekk ngëneel mën na bañ ndax jaan moom dafa bari façon ci gént mais nag li may bañ mooy dama bañ a dugg ci côté boobu خمغا لا تنكر الوحي من روحياه إن له خلبا إذا نامت العينان لم ينمي يننت بي صلى الله عليه وسلم محمد البصير ينين يننت دانا تد دي نلو مي خول بي دو نلو لومو نلو نلو نلو نلو نلو خول باغي تود يالا لغي نيت كيغا خامني دمنا دي ذكر لول نك توجور سي لامين لاي نديكه نك غيس نغا لامين su fekkee làmmiñ wi li muy sikkar mi ngi koy teewlu di ko teewlu bu yàggee coow lay ñëw foofu mais su fekkee li muy sikkar teewluwu ko mais na nga ko def téeméer yoon mu def ko téeméer yoon rek rek rek kooku du dem mm-hmm. dégg nga mm-hmm. ndax li ma lay wax nii mm-hmm. benn waaye wax na ah, am ko ko ni salaatu ala nabi bi nga xam ne moom nee na gis na ci yonent bi du benn du ñaar du ñett da koy zikkar ba benn bis yonent bi sallallahu alayhi wa feeñu ko naan duma dem bërëb sàngam ndax dafa bari bàkkaar maanaam damaa bañ a tudd turu ba mu wax xam nga yonent ku ko feeñal dem safara mu ni damaa bañ a dem béréb sàngam ndax dafa bare bàkkaar ah béréb boobu nag dinaa ci toog di ko xalaat lu tax yonent wax loolu te booba mi ngi kaala woo kaala gu weex moom sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. uh, der bu ñuul mm-hmm. ci laa dem mm-hmm. ba yëg ni ndekete yonentu alayhi salaatu wa salaam bis boo ko géntee mu yore der bu ñuul dafa am lu mu lay tere bul def nangam dafa lay jàjj boole ca nag ni duma dem béréb sàngam ndax dafa bare bàkkaar mën daal affaire bi jaaxal ma lool béréb boobu lu tax mu wax ko lu tax mu wax ko jamonoy dem jamonoy dem jamono dem ba ma touré lutax mu wax bi rek boobu waaw gis nga sax ma nga nan lutax mu men na ba ba waja xam lutax mu wax bi rek boobu léegi mooy salatu ala nabi moy da ko don defé xolam yor lu woon kurusam fep fu nit ñi tok xel ma nga ci yonent fu mu toll lol salatu bobu lay wax muy salaatul insiya salaatu insiya am na waa ji ma doon wax da nga ko bëgg trop mhm. allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim xam nga lu tax salaatu boobu mhm. sama wayjur mhm. bu ñu tolloo ay tuut tànk xam nga jëmbat ñambi ñambi gu ñu jëmbat looñ koy loolu lañ koy jëmbate sans papa ñu koy jëmbatal ñambi mu ne ñambi gu nekk bala ngeen koo jëmbat samp ko ci suuf na ngeen wax allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim samp ko ci suuf ñaam bi googu képp ku lekk ci reer bi dana dem aljana wallahi wal quran al azim noona suñuy jëmbat ñun ñëpp noonu lañ def allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jëmbat allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim jëmbat gis nga béréb bañ ko doon defee ba léegi maanaam xam nga yàlla waxloowul kenn béréb booba ñu koy defloon ba léegi yenn saa yi ma géntu fa dara mu jaaxal ma trop te la mu fay gént dafa may jaaxal jaaxal loolu daal lan la war a mën a nekki moo may jaaxal te béréb boobu lañ ko daan defee sama toolu papa la tey sama rakk mun ñang moo nekk moo yoret comme man bayuma mais foofu noonu lañ ko daan defee allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim waa ji ma ni ko nag salaatu yëpp baax na mais salaatu boobu moom li wér a wér a wér moom képp ku ko saxoo gis yonent bi dana la yomb waa allahuma salli ala muhammadin wa sallim boobu moy salatul insiya saydinaa bi mën na cee bañ a waaw allahuma salli ala muhammadin wa sallim allahuma salli ala muhammadin wa sallim allahuma salli ala muhammadin wa sallim ndax sayidina ñëwul ci alquran wala de dafa am voilà loola tax ñu tuddee ko asalaatul insiya gis nga li ma lay wax nii xam nga duwul ni dama toog ci rajo li wax mais li wér te wér salaatu boobu képp ku ko fonk dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg fonkal mi da nga ko gis لاجي بو خولي اللهم صل وسلم على عين الرحمة الربانية ولياقوتة المتحققة الحائتة بمركز الفهوم والمعاني ونور الأكوان المتكونة الآدمي صاحب الحق حق رباني البرق الأستاع بمزون الأرباه مالئة لكل من, من البحور والأواني أوكي خمجي من البحور مويلا دفري جيت yonent bi sallallahu alayhi wa ci boppam moo tëbb yonent yëpp ba ñu am leer ba fees dell kooku mooy minal buxuuri wal awaani mooy ndab mais jubul wu ci ndab mooy dënn waliyu yi waliyu ñoom yonent yi géej lañu mais yonent yi ñoom seen dënn ndab la yonent boobu nag sallallahu alayhi wa sallam ndabu waliyu yëpp moo koy duy leer ba mu fees dell am na ci nag ñoo xam ne bu seen ndab feesee bay tuuru ñoo tax ñuy wax dégg nga xam nga limb limb mooy paan boo duy ba mu fees nga def ci ay ay ñax pour bañ mu tuuru kooku mooy limb dafa am ci wali yoo xam ni dañuy fees dell dell dell dell dell duñu wax mais dañu naan tekk ñoom noonu la duñu wax da ngay gis ñuy mingi rek bu ñu mingee rek gis nañ dara ndax euh, gaaw a wax ci kuy gis baaxul dafa koy yàqal waaw bu fekkee yaa ngi gis di wax rek bu yàggee sa marta boobu dafay yàqu loolu tax waliyu ñenn ñuy bare di def seen bopp comme dof ngir ragal bañ a wax ndax euh, am na ku nekk ci wokaam dama fàtte booba man ak sama kii siise ñu ngi fii ci rajo bi nii ma toogee nii. boobu masa yi ngi fi. góor gi di nettalii yonent bi la gis ak saxaaba yi. ak ak ak ak Aboubacar. mu di ko nettali. mais ni mu koy nettalee ci ci man ni ma toogee boobu ma fii laa toog. mais góor gi bi muy wax. Ah, dafa mel na man fàtte naa ne sax maa ngi ci rajo bi mais dafa mel na yonent bi moo ñëw ba ci sama kanam mu tiim ma ma di ko xool ci misaal rek. it dama ndax euh, ya maanaam li ñuy wax diaaya dafa xaraam kenn du oote ndax nit ñi boo wax rek dañuy déedéet maanaam ci misaal rek mais du duwul ni lool la mais bi góor gi di wax ci wakaam dem naa sax ba seeti ko dafay wax di wax ba mu mel ne yonent bi moom laa tiim nii nii nii nii dafa toog ba ca kanam courant bi yëpp ni kamaj boobu maa ma say ñu ngi li commencé ci septième fii ñu première ba septième yëpp courant bi dafa coupé mu mel na ma doog a dellusiwaat ba ma fa demee ma wax ko nag li mu def dafa garaaw ndax loola ma ne ko man bi mu koy wax sama xol moo yëg ni li muy wax dëgg la ndax màndarga yi muy wax man gëm naa ni moom loola moom lu wér la ba ni ma koy waxee nii man fàtte naa ni sax ni maa ngi ci rajo bi mu mel na damaa jàkkaarloog jëmm ji carrément muy jàkkaarloog man mhm. waaw gis yàlla moo def sutura rek ba immeuble bi yëpp àndandoo kamaj nde moom maanaam demoo tuuti ma yuuxu maanaam daanu xaal yàlla dogal bi bi ma bëggee dem ba foofu affaire bi yëpp àndandoo ni kamaj ma ne alhamdulilah moo tax sutura rek ndax su ma yuuxu woon ci rajo bi ndax war a animé ba di yuuxu nii may déglu dañuy mais gis nga ni yàlla defee affaire bi bi affaire bi courant bi yéene ni kamaj ñu ni courant bi moo sote ma ne alhamdulilahi rabbil alamin eh, moo tax ma lay wax ni wax dañ koy tere looloo tax ñiy ragal ndaw mu dugg ci boobu fànn ndax bare na lu nit wax ak lu mu yëg ki nga toogal li mu wax moom li mu yëg yëpp yëpp yëpp yëpp bu ko waxoon macha allah su ko defee loola ah, dama ko dund mais li wér te wér allahuma salli ala muhammadin wa sallim allahuma salli ala muhammadin wa sallim allahuma salli ala muhammadin wa sallim soo koy wax nag mu menn maanaam bis boo koy wax mu menn yaa ngi jàkkaarloog yonent bi noo gën di def mm-hmm. affaire bi sa xol dafay gën a ubbeeku da dem ba dootoo ci àpp kur foo toll moom ngay wax ah, xam nga mm-hmm. yonent bi alayhi salaatu wasalaam mm-hmm. maqaamaam yàlla rek ko xam su ko defee nag li feeg yaa ngi def salaatu ala nabi moo tax mag ñi di cax julli goo xam ni soo amee sobe ñu fay la soo amul sobe ñu fay la soo njistalee ñu fay la boo njistalul ñu fay la mooy salaatu ala nabi aw allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim léegi nag comme alquran muhammad la indi ndax muhammad yaayam moom lañ ne ko ida wadaxtihi sammihi muhammad su juddoo na nga ko tuddee muhammad góor gi nga xam ne mooy abdul muttalib astaghfirullah abu talib Abu Talib mooy papa Seydina Aliyun euh, ñu ni ko su juddoo na ko tudde Ahmed su juddoo na ko tuddee Ahmed yaayam ñu ni ko bu juddoo na ko tuddee Muhammad soxna xaj soxna Aminatu ñëw ci góor gi euh, góor gi Abdul Muttalib abdul mutalib maamu saydina aliyun mooy seen maam amma aliyun bila shakkin qad istaqaya bi shaybat alhamdi zil ifdali wala himami léegi shaybat alhamdi moomu maam ji ñëw ni ko maanaam yaay ji ñëw ni ko ah man de wax nañ ma ni lii ma ëmb ci sama biir xale bu góor la te wax nañ ni bu juddoo naa ko tudde Muhammad góor gi ni ko ah soxna si li nga wax dëgg la man itam wax nañ ma ni bu juddoo naa ko tuddee Ahmed xam nga ñaar ñoom kaalidu bu ñu amee doom yaay ji dafay tudde baay bi tudde foofu la foofu mbir mi soxe ko dëgg la suñ mbokki Haalpulaar yi mm. bu ñu amee doom ñaar la ñuy doon kii dafay tudde kii tudde mais li ci ëpp nag ñaari turu yaay ji boo moytul mooy gën a siiw waaw Ahmed ñëw na ci alquran Ahmed mm-hmm. ñëw na ci alquran Muhammadun Rasulullah ñëw na ci alquran kon nag ñaar yëpp ñëw nañ su ko defee loola moom moo tax bi sang bi juddoo nag ñu tudde ko Muhammad ku ñu sant ki waande nag boo demee ca injil loola moom amu ca am naa injil bu mag bi bu mag bee mag a mag sama waajee ma ko yónnee bu ngand bi waaw maa ngi doon liir sax temps yi histoire u Samson et Dalila waaw Samson léegi euh, Muhammad alayhi salaatu wasalaam alquran moo ni Ahmed mais ñoom baaraq gis naa ko am naa téere bi li may wax nii du lu may fortu de baaraq liit ñii ni faaraq maanaam la muy tekki mooy ki nga xam ni dafa ànd ak ngërmale yàlla ki ànd ak ngërmande yàlla dana ñëw Muhammad ku ànd ak ngërmande yàlla dana ñëw léegi nag ki ànd ak ngërmande yàlla olof bi ni mu koy waxe ak tukkulóor bi ni mu koy waxe bokkuñu mais benn bi la rek ak tubaab bi loolu nag ci la ñuy wane ahmet ak baaraqliit wala bu dee baaraqliit baax na bu dee faaraqliit baax na loolu nag moo ñëw mais ama tur ahmet ñun ñi ci ci suñu alxuraan ji moo ñëw noonu mais fële faaraqliit la ñu wax te nag duwul ni ndax am na ku doon wax neen yaa aysa yaa yaa aysa ya hawlaka lu yaa talka ya maa ngi koy wax noonu sax <laughs> ñu naan ñu xaw ma ñële loolu la ñuy weer wari ko bul tuddati diine jàmbur da ngay maanaam te nit ki lépp loo xam ne gisoo ko mais kenn ku ci nekk am nga droit ni lii gis naa ko ci téere sàngam boroom xam-xam bind ko mais loo xam ne yaa ngi koy wax naan ñoom sàngam nii la ñuy sikkarta buñ ne woon foo ko gis doo ko andi lu dul nee nañu loolu wóorul man nag lii may wax nii am naa am naa téere am naa ndax góor gi ma ko doon jox daf ni ma maa ngi lay jox téere bu raar waxuma nag ni da nga gis ku ko am mais bu raar ndax téere ba xam naa ko ko doon bind daf ci jublu woon secret biir néeg xawma ma nag nuñ fexe ba téere boobu kooku borom xam-xam la woon nuñ fexe ba téere boobu kooku nag muy sama mag gaañu na ñun ñu bokko nekk ci daara ji suñu sama magu taali bi la woon ñuy wax li taxoon nag mu kontaan mu jox ma téere bi dama ko doon jàngal daaliya mu ni ma yow kañ nga judd ma ni ko man maa ngi juddu 1953 mu ni ma leer yow at mi nga juddoo maa ngi jàng daal ma maa ngi ci daara ji di jàng téere bi te téere bi mënuma koo man man maa ko ko jàngalaat après waaw te téere bi moom daf ko jafe loolu léegi moom li ko jaaxal moom nan laa mën a téere bi te man bi may bi may judd moom mi ngi ci daara ji ma ne ko loolu du loolu waaw mooy téere boobu arij bi mun arijil hidaa bil wurradi بين اللزاب وبين ذات الأرمد وعجس من الجعس الذي بحطيضه أجداث أعداث العثير العمد خمغا دفعي وقتيري بوبو دالي يلن كتو دي نخ لسان غور غم قرآن جانجل بوي جانجل نين عبد الله ابن ناصر علمين بدرعة لا أبا لك ترفدي لكو قنونا جاخال ويا إمناك ويا سمناك بالملوات حد العجلدي العجل هل من عشايا في عسايا مصر موسية موسية من عود وتجاس بالخلاصاء كأثان به من أنس لا لا من سلالة سرخدي مدن بجي بيرنا مي جانجل ده يا خمة لنفوسنا من فرعة أبدية للمعلف المتأود إن الفراخ يزوعنا ويروقنا في هذه الدنيا فكيف بأبعد mu gis nga loolu mu mu andil ko daal di andiwaat nag wa maanaam bakkan ci bakkan bakkan wa xalifatan li yastari fiiha mustaxlif maanaam loolu mu di ko jàngal ma ne ko lii bi ma koy jàng damay ndaw te dama koo mokkaloon léegi la sax la rëcc nde téere bi yëpp dama ko daan tari mook ibnu duray kenn ki mun la ki kenn mun la tari muy maqaamatul xariiri gis naa sama benn waaye moom da ko daan tari maqaama waaw nga xam ni waaw da ko daan tari kooku moom moom wax dëgg yàlla jàmbaar la ci waaw man mii gëj koo gis gëj goo xam ni yaakaar naa ne taneetuma ci xale yu am juróom-ñaari at ndax gëj naa ko gëj am naa ko téere bi nii sax am na sax benn waay bu ñëw indil ma sarxa bi macha allah mais su ma ko xoolee tuuti ne ay waay ku koy jàngati waaw ko koy jàngati laay wax xëy na xale yi su ko defee loola la yàlla dogal mag ñi soo ñëwee banañ laa jàngal baatin dañ lay gëstu ndax fenni nga ci sharia ndax fenni nga ci luxa ñu dog la jàngal baatin bo xasse ba man calcul ba ba yewu ci ba yewu ci ci sharia yewu ci lugha ta man calcul yow baatin mom sa baatin bu la nexé du am yemukaay waaye nag gént su yannati bi alayhi salaatu wasalaam ah ngeneel la te yannati bi neena kep ku gént jisma sama jëm la ndax shaytané mënul jël sama jëm su ko défé nak du ñu bëgg itam foo toll naan gis naa yonent bi gis naa yonent bi gis naa yonent bi ndax dinaa koy wax xale yi dafa am benn waaye bu géntoon gis yonent bi mu ni ko na ngeen di wattandiku seeni baaraam yi maanaam seeni bëñ yi ngeen di ko dagge seeni we mën naa joxe feebar bu dootul wér te ngaana ca la bokk mu gént nee na yonent bi wax ko ko mu wax ko moroom gaañu naan waaw xam nga yow yow da bëgg woote gént naa yonent bi waaye jëmal fale waaye géntoo dara waaye soo su tëdd ba guddi rek yonent bi feeñu ko ni ko waaw yow lu tax bu ñu waxee ni yonent bi nee na nangam ak nangam doo ko gëm ngay nga koy nga ngay def li li li may tere mhm. waaja yeewu ñëw ci ngóor si ni ko hée eh. sëñ bi mu ni ko mu ni ko gis naa sang bi mu ni ko nu mu mel mu ni ko dafa ñuul kukki bi muy wax ak man mhm. mu ni ko waaw loolu lay def la lay tere moo ma ndax kon yonent bi saa soo ko géntee mu ñëwee la melokaanu nit ku ñuul mooy yaa ngi def loo xam ni baaxul soo ko bàyyiwul boo dee du la ram jar naa leer aha mais su fekkee nag da nga ko gént mu yore jëmmi naar rafet lool lool lool lool lool lool lool jàppal ne yow sa yaram xaraam na safara oh, su ko defee noonu la kon nag gént naa yonent gént naa yonent hmm. macha allah mbir bu mata nan nga ko génte ban melokaan noo jawhara dama ko doon joxe exemple pour rek ni minal buxóori hmm. wal awaani hmm. من البحور يننت بي صلى الله عليه وسلم موم دن يننت لا جاول لا ني جابي كوم گيج نخ نخ جوهره شيخنا تيجاني لا يننت بي ديكتي مو بيندكو يننت بي ديكتي كو شيخنا تيجاني بيند جوهر موتاخ نك بور ني ولي غاوا واخ سين داب دا فياتو لولا تخ ما تودون لا نوم تودتي امنا لوم واخون ليمبو دي limb mooy rembat xam nga rembat bu rembatee dafay dafay tuur voilà ñooñu mooy ndab yi dafa tuur ma xam nga kenn ki yore bërigo maanaam même bu bërigo bi bu demee ba digg moo gën a bare paan gi te borom bërigo bi du wax ndab li yaatu yàllaa koy yàqali loo gën di def salaatu ala bi sa ndab di gën a màgg waaw loolu waaw moo tax ñu gis nga salaatu ala bi loolu tax ñu di ko def ci jaamu yàlla gu nekk loo gën di julli ci yonent bi sa ndab gën a yaatu اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم بولا نيخ يتم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وسلم واو سيدنا بي اللهم صل على سيدنا محمد وسلم مو غن يوم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم اللهم صل على محمد وسلم جيس نغا لي ماي واخ ني رك تيابلا نخ يننتي صلى الله عليه وسلم درام نينول waaw xam nga li ñuy bañ mooy dañuy bañ kii gis ne aynu mooy firi teen nga xam ne loolu du firi teen waaw kay allahuma salli yow sama boroom yàlla na ngay sotti xéewal gudul dagg kañ ala aynil xaq ci ki nga xam ne mooy jëmmi dëgg mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi mooy jëmmi dëgg dafa taxaw ak dëgguk yàlla غني كو اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق مو ديمبل يالا بالحق تي دغغي يالا بغا تخاول كون نك اللهم صل على عين الحق يالا يالا نغا دي ديمبل تي كيغا خامني موم موي جيمي دغ موي عين الحق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كون jawhara nag mhm. jawaahir mhm. mooy urus mhm. al mooy ay urus waaw ndax jawhara ci nit mooy ruuxam waaw ruux mooy jawhar sa soo déggee ñu ne jawhar rek ci nit mooy ruux bu fekkente ni ci xeer yi la buñ nee jawhar ñu jub ñu jublu ci urus waaw nag ci biir urus am na beneen bu ñuy wax lu'lu lu'lu ñu koy wax wax urus moom mooy ribi waaw ribi ñi jàng nasaraan ñi xam nañ mooy ribi moom la ñuy wax lu'lu maanaam per la boo xam ni dafa rafet lool lool lool lool moom la balxiis bëgge woon a naxe Suleymaan <laughs> ndax booba ribi ci géej lay nekk mais dafa rafet léegi nag la ñuy wax lu'lu mais bu dee jawhar xeer yi xeer wa ci gën a rafet gën ci foor ñu xam ko mooy lu lu mo mooy jawhar ci biir jawhar nag xeer ba gën a foor ci biir jawhar moom lañu ñu tuddee almaas mooy jama almaas mooy jama damay joxe istixfaar boo xam ni ñaan liggéey la boo xam ni képp ku koy liggéey mm-hmm. da am wërsëg mm-hmm. da nga gudd fan da nga jubóog yàlla da nga jubóog yenent bi da nga jubóog say mbokk da nga dama ne da nga am wërsëg da nga am teranga da nga gudd fan da nga jubóog yàlla da nga jubóog say mbokk muy bu da ngay njëkk a def fatiha benn yoon salatul fatihi benn yoon te itam bu fekkee bayre rek nga bëgg bayre ñëpp lay sopp amul fooy dem bu la benn bu la benn waay bu la fi waxee dara danga nga gis ñu jóg jéngu pour dóor ko te xamuñu la sax waaw kon nga ni looy def da ngay def faatixa benn yoon salaatul faatixi juróom-ñaari yoon astaghfirullaha bu la neexee astaghfirullaha nga def ko benn eh, eh, ñett wala nga def ko juróom téeméer wala nga def ko juróom-ñaar fukk maanaam bu la neexee nga def astaghfirullaha astaghfirullaha astaghfirullaha nga def ko 700 de la ñuy wax wala nga def ko 70 su ko defee bu la neexee itam nga def ko 2872 wala nga def ko 375 boo ci mën a sax rek baax na na sax rek boo ci mënti jàpp ci lim yooyu na sax boo fa jógee nga def ayatal kursi yi cent soixante dix. waaw ayatul kursi yi. nag. dafa am ñoo xam ne ku mel ne soxna Ndeye Mbeng ñoom dañuy bëgg même bu moo ko waxee lim bi ci français ma di ko wax ci wolof kon soxna Ndeye Mbeng kon fatiha benn yoon salaatul fatihi ba mu jeex juróom-ñaari yoon astaghfirullaha ñetti yoon astaghfirullaha nag ñetti façon la astaghfiru llaha azima lazi laa ilaha illa huwa alhayyul qayyum wala maanaam yooyu nag dama dama bañ rek nga ni déedéet dama ni wala nga def rek astaghfirullaha astaghfirullaha astaghfirullaha su ko defee boo defee astaghfirullaha ñetti yoon ñaan yàlla li nga bëgg lépp lépp lépp lépp lépp lépp defaat astaghfirullaha astaghfirullaha astaghfirullaha soixante-dix mooy juróom-ñaar fukk nga ñaan yàlla li nga bëgg lépp lépp lépp lépp lépp waxaat astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah 600 du moy 700 euh, juroom ñaari témèr nga wa ñaan yalla li nga bëgg lepp waaw ñett lim yeb ngay def ñett lim bu njëkk ba da ngay tari fatiha ben yoon salatul fatih ben yoon astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ñett yoon yalla li may def kat ma ngi ci jublu jaamu la mais maa ngi ciy jublu itam ñaan la nangam ak nangam ak nangam bu dee wërsëg bu dee teraanga bu dee gudd fan su ko nga def ko daal di jógaat def astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah juróom-ñaar fukk daal ni yàlla maa ngi lay ñaan nangam di la ñaan nangam di la ñaan nangam di la ñaan nangam daal di jógaat benn bu ci nekk nag fatiha benn yoon salaatul fatiha juróom-ñaar astaxfirullah ñett daal di ñaan yàlla sa aajo boo boo boo añaane aajo ba pare defaat fatiha benn yoon salaatul fatiha juróom-ñaar fukk xaw ma juróom-ñaari yoon 67 fois nga def astaxfirullah 700 wala 70 mooy juróom juróom-ñaar fukk. juróom-ñaar fukk. kon lim boo jógee di demaat si beneen lim bi da ngay tàmbaliwaat benn fatiha. waaw juróom-ñaari salaatu fatiha. voilà doo ko demaat beneen limu astaghfirullah. ma ngoog noonu nga koy def su ko defee nag soo paree rek. Mhm. nga ñaan yàlla sa ajo mhm. soo paree nag mhm. nga daal di def asta nga def euh, astaghfirullah ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk mooy trois cent soixante quinze. wala nga def deux mille. 872 ñaari téeméer ak juróom ñaari junni ak juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñaar nga daal di jàng ayatul kursi yu euh, maanaam ñetti lim ñooñu nag bu la neex ngay def bu la neexee nga def astaghfirullah ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom bu la neexee nga jël ko ñetti téeméer ak euh, ñaari junni ak juróom-ñett fukk ak juróom eh, eh, ak juróom-ñaar fukk ak ñaar ayatul kursi yu ba mu jeex nga jàng ko téeméer ak juróom-ñaar fukk boo fa jógee nga def nag yaa kaafi yaa xaniyu yaa fataaxu yaa kaafi yaa xaniyu yaa fataaxu su ko defee kooku tam nga daal koy def eh, trois cent 75 waaw yaa kaafi waaw ak juróom waaw mhm. daal di jàng nag yaa ka yaa kaafi yaa xane yaa fataaw su ko defee boo fa jógee nga daal di jàng yaa razaqu yaa razaqu yaa razaqu bu la neexee nga jàng ko ñetti junni mhm. bu la neexee nga jàng ko téeméer ak juróom-ñaar fukk mhm. yaa yaa yaa yaa yaa waaw yaa razaqu gis nga mm-hmm. lii bu fekkee nit mi ngi koy liggéey bu soobee yàlla mm-hmm. doy na ci turu yàlla doy na ci njéggulu mm-hmm. dana am wërsëg dana am wér dana am teraanga te gudd fan yàlla mi ko moom moo ko yore te yàlla dana ko yor soo paree nga daal di ñaan nga ni allahumma yaa mufattihal abwaabi allahumma يا مفتح الأبواب ومسبب الأص ومسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا دليل المتحيرين ويا غياث المستغثين ويا مفرج المحزونين أغثني أغثني أغثني يا رحمن yaa raxiimu maanaam yaa raxmaanu deux fois waaw si wala six fois waaw non trois fois la rek yaa raxiimu yaa raxiimu trois fois ñetti yoon tawakkaltu ilayka yaa rabbi tawakkaltu ilayka yaa rabbi faradaytu fadlika yaa rabbi wa fawadtu amrika ilayka yaa rabbi ajib ajib yaa mujibu yaa razaqu yaa fattaahu yaa baasitu yaa qaribu nga daal di koy jàng nga jàng salaatul fatiha ba mu jeex lii bu yàlla dogalee nga sax ci bépp aajo boo mënti am ala xaal yàlla dana la fajal aajo bu dee gudd fan da ko am bu dee wér da ko am bu dee set wecc ci bàkkaar da ko am kon mbir la moo xam ni dafa boole nga am àdduna ju neex am alaxira bu neex wali man xaafa maqaama rabbihi wa janal jannatayni daani fa bi ay alaai rabbikuma tukadibaani waaw dégg nga ma waxaat ko fatiha benn yoon salaatul fatihi ba mu jeex ñetti yoon mooy ku ko xamul allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatihi lima uxliqa والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم جرم ناريون استغفر الله استغفر الله استغفر الله نتيون يلا ماغي لاي نيان نعم، غا ماي ما نانغام اك نانغام اك نانغام غود فان وير ام سوتورا ام تيرانغا يا خام يونتبي صلى الله عليه وسلم نينا su ngeen di ñaan yàlla même rëndaay rëndaay li nekk ci kaw mooy idaam ci arab al idam, mooy rëndaay li nga teg ci kaw ñam wi nee na booy ñaan yàlla sax ñaan ko ko ndax yàlla mën na lépp te dafa bëgg ku ko ñaan su ko defee kon nga ñaan yàlla li nga bëgg lépp gis nga lii ma wax nii nii nii nii yàlla xam na ko su fekkee turu yàlla rek la da nga am aduna, da nga am alaxira yàlla dana la may teranga ju ju ju neex ëllëgit da nga dëkk ak yonent bi sallallahu alayhi wa ci àjjana wali man xaafa maqaama rabbihi jannataani kon képp ku ragal yàlla danga am ñaari àjjana àjjanay àddina ak àddinay àjjanay àllaaxira mooy lii ma la wax nii ku ko am bu soobu yàlla noonu ngay noonu yàlla di defal nga ni laan nga ni fatiha benn yoon salaatul fatiha benn yoon ñett juróom-ñaari yoon astaxfirullaha ñetti yoon daa di ñaan sa aajo daa fatiha benn yoon salaatul fatiha benn yoon Astaghfirullah, juróom-ñaar fukki yoon muy 70 daal di ñaan sa aajo mhm. waxaat fatiha benn yoon mhm. salatul fatiha juróom-ñaari yoon mhm. astaghfirullah nga wax ko juróom benn téeméer mooy 600 gis nga lii boo ko defee rek macha allah daal di euh, wax astaxfirullaha euh, nu ngeen ko ti 375 375 ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom wala nga def ko ñaari junni mhm. ak juróom-ñetti téeméer mhm. ak ak juróom-ñaar fukk ak ñaar mhm. deux mille huit cent soixante douze ayatul kursi nga denga ko mille soixante dix ah cent soixante dix téeméer ak juróom-ñaar fukk yaa kaafi yaa ganiyu yaa fataaxu yaa razaqu cent soixante dix mbokk bismillah السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله سرين آدم سيسي sang bi ñu ngi lay ziara maa ngi lay ziare bu baax Cissé di la ziara ci guddik yonent bi sallallahu dëgg la yàlla nañ ko yàlla boole ñu fekke ko at yu bare te ànd ak jàmm wax dëgg yàlla ñu ngi jéggalu de alhamdulilah ndax waxtaan bi moom fi mu toll macha allah dëgg la kay ah dafa tolloog nag ñu ngi wuñu bañ a woote rek. alhamdulilah. ay suñu sañoon moom duñ ko topp. di la ziyaara ci sa barki turando. dëgg la yal nañ ko yàlla boole nangul. xam naa ne sànq sax yaa ngi wax naan buñ la tuddee nit di ngi jël ci moom juróom-ñaari jikko. waaye yow de moom macha allah. alhamdulilah. macha allah. yal na yàlla nangu. amin amin jaay Sidi Bachir. tabaarakalla Cissé. Ah, tabaarakalla di ziara. xam naa war ngaa xamante nag Adama Sow. wallaay ndeysaan. Sow bu bari ñi. waaw oustaz Adama Sow bu bari ñi. xam naa du mu yàlla nañ ko yàlla fayal defal na ma teraanga bu rëy ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. amin alhamdulillah. yal na yàlla nangu. amin yaa rabbi. xam naa di ziyaara Serigne Kalidou Gaye Kalidou Gaye wallaay ndeysaan di ziyaara Serigne Ousmane Diop wallahi Serigne Ousmane Diop sama jarbaat di ziyaara Alhaji Omar Kane mag mu baax wallahi yal na yàlla dolli koo saxal ci kanamu mbooloo ma ko sutura moom Alhaji Omar mës na ma wax ne ma heure bu ngeen waxtaan rek wallaahi. yàlla nañ ko yàlla fayal ku baax la de. mu ko wax nee na ma wax fu ngeen di waxtaan rek maa ngi déglu. ak góor gi Tafsir Sakho. wallaahi ndeysaan wallaahi ndeysaan. alhamdulilah. Euh, euh, euh, kii Serigne Cheikh. Hmm? wallaahi muy wax lu am solo. te loolu moo nekk ci jamono. dëgg la. Serigne Cheikh damay faral di wax ni yàlla bu nu gis sunu bopp. amiin yaa rabbi. yàlla it bu ñu yëg suñu bopp. amiin yaa rabbi. ndax gis sa bopp mooy def dara ba pare di ko bakkoo. dëgg la. yëg sa bopp mooy nga yaakaar ne bis du ñëw ba ñu tëral la ci biir bàmmeel. wallaahi yàlla xam na ko xap. lu jar a bàyyi xel la. wallaahi lu jar a bàyyi xel la. sëriñ Cheikh dañu toll ci jamono joo xam ne. am na ci ñoo xam ne ñu ngi def lu leen neex. am na ci ñoo xam ne ñu ngi wax lu leen neex. wallahi te wax dafa am ñu ko yeyoo. li nga wax yépp xam-xam la. ci sa introduction bu njëkk. ci vingt trois heures. lépp xam-xam la. dëgg la. moo tax mu ma ne yéen yéen a war a wax. ndax li ngeen di wax yépp jéggiwul alquran ak charia. dëgg la. ba tax na ñu ngi leen di ndokkeel ci weer wi. yal na yàlla nangul ñu ñu fekk ko bu baaree baaree baaree te ànd ak jàmm. ñëpp. wallaay ndeysaan. bàyyiwunu kenn. bu dëgg la. képp kuy déglu rajo bi. Mhm. parce que du waa daaray fajtal kese rajo bi. dëgg la. am na ci ñeneen ñoo xam ne xamuñu sax luy daaray fajtal. wallaay dëgg la. may ñan yàlla. ñi mhm. nga xam ne dara tëwu ko. dëgg la. yal na yàlla def ci xolu ñëpp ñu ñëw adhéré fii ci daaray Fajtal. amiin yaa rabbi. ci barke yonent bi. sallallahu alayhi wa sallam. ndax daaray Fajtal daf ñu defal lu ñu kenn musuta defal. wallaay. daf ñu xamal lu ñu kenn musuta xamal. xam nga liir su juddoo. lan lañ koy njëkk a defal. xanaa sang. kental. waaw toqental waaw. toqental boobu nag ngeen ñu defal. dëgg la. moo tax ba léegi ñu ngi tàqamtiku. est-ce que incha allah ñu ngi waaj ndax koor gi. wallaay ndeysaan. ki ma ni masa yi ngi ci xalaat yi léegi. wallaay ndeysaan. fan yëpp ci la ci la nekk. wallaay ndeysaan léegi rek laa ko léegi rek laa ko jot ne ko mas sa coono. wallaay. coono bi ngay daj yëpp xam nañ ko. wallahi coono bi ngay daj yépp gis nañ ko. wallahi malgré que du ñu gisante bis bu yàlla sàkk. wallaahi nañ ko am na ñu yëg-yëg boobu. Uh-huh. coono bi ngeen di daj Serigne Cheikh. Uh-huh. xam nañ ko te yëg nañ ko. Uh-huh. ndax bugg leen lu dul jullit yi jariñu. dëgg la. waxuma daaray fajtal de. dama di jullit yëpp jariñu. wax nga dëgg. Sénégal yëpp jariñu. Adama xam naa doguma la. léegi ma Masay. léegi la doon waxtaan ak Sidi Sey. pour Sidi Seye itam ku jàmbaare la nag ndax moom itam toujours mi ngi ci suñ kanam di ñu jàppale. léegi la ma Seydi soññee di wax ni. Mhm. mbooleem ku nekk daara fajtal. Mhm. na jàpp ni suba la koor. Mhm. pour ñu mën a taxaw nag ci waxtaan. ak waajal koor gi conférence bi. tabaarakallaa ma ni ko ah, jëf ndax euh, nit bu jiitoo. xalaatam dafay sore di xalaatal dara balaa muy ñëw. wallahi wallahi kon moo ko euh, ñoom ñu ngi ci commencé. Mm-hmm. Euh, mook di sëy mm-hmm. ak sëriñ Serigne du gay mm-hmm. fi mu nekk nii ñoom jàpp nañ ni suba la koor. su ko defee nag kon loolu ñu commencé di ko waajal bàyyi xel. ba ñun ñëpp ñu bàyyi ko xel ba koor gii ñu jëm mu fekk ñu ci jàmm. te conférence bii ñu jëm yal na gën a réussir buñ mës a def. amiin ci barke yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam. amiin xam naa nag dana am loo xam ni Kalidou dana ko wax moom. Mm-hmm. incha allah. ñun jë defuñu intérêt personnel de. Mm-hmm. wallaahi wallaahi. intérêt ngeen di wax wala nuñ koy waxee. intérêt commun intérêt général. intérêt général mm-hmm. waaw. intérêt général nag la ñu moo tax moo tax. wallaahi dëgg réew mi yëpp yëpp yëpp la ñuy waxal mais ñun waxajuñu benn daayira réew mi lép lañ bëgg mu jëriñ. la commencé ci président de la république. Mhm. ak ñi nga xam ne ñooy suñ kilifay diine. Mhm. ñoom lañu bëgg itam lépp loo xam ne mooy seen liggéey yàlla may leen ci ndam réussite totale. ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba Sénégal bokk ci réew yi gën a kawe ci Afrique. wallaahi eh, Afrique it bokk ci réew yi gën a kawe ci àdduna bi. wallaahi tabaarakallah mais Sénégal en tête. waaw loolu lañuy liggéey moom si àll. tubaarkàlla kon nag su ko defee ñuy mhm. ziyaara waa kër Seydi Hadji Malick yëpp amiin yaa rabbi yal na yàlla nangu ndax euh, sànq da nga wax ci Serigne Abdou lu daw yaram wallaay ndeysaan aha gis nga Serigne Abdou aha al amin yal na ñu ko yàlla fayal amiin yaa rabbi yal nañ ko yàlla fayal dal nañ ko yàlla fayal. wallahi yàlla xam na ko. gis nga ni ñuy décorer employé yi gën a fës. ci réew mi. ëllëg yal na ko yàlla décorer ci kanamu yonent bi. amiin yaa rabbal alamin waay waay Adama yaa baax waay. yal na yéex nag. min yaa rabbi yal na yéex. amiin yaa rabbi. ndax sagu tariixa bi la. wallahi sagu diine ji la. wallahi sagu Sénégal la. wallaahi ndeysaan. ñetti sag yooyu yëpp la boole. wallaahi. moo tax nga ne fa nga waxee ne passé na junior. wallaahi. wallaahi dëgg la. passé na ko. passé na junior. wallaahi. al amin. wallaahi. boobu kuñ ko tappal ku ne. wallaahi ndeysaan. doo ko tuuti. dëgg la. billaahi lazi. tabaarakallah. moo tax ma ne puso bi réerul. réerul wallaahi ndeysaan. puso bi si Seydi Hadji bàyyi woon. Ah. réerul. mokk wallaay. lamp bi it fayul. wallaay ndeysaan. ba léegi mu ngi tàkk. ah di ñaanal ki ci ruq bi rek. wallaay ndeysaan kooku. waaw waa ji ma ne ko kooku nekkul ci ruq de. nekkul ci ruq xëy moo tiim alam bi yëpp. maanaam ka ca ruq ba passé na foofu man ma ku mel na man moom la ñu war a wax ka ca ruq ba. wallahi xajul ci ruq. mais moo mukk wallahi xajul ci ruq moo tiim alam bi yëpp Seyd Cheikh Ahmed Tidiane si almaktum xajul ci ruq passé na foofu. te aussi dafa am lu am solo loo wax. ne dafa am ñuy wax nan na génn. waaw. waaw suy Cheikh li mu génn. ci wax ak waxuma Sénégal sax waaye monde bi yëpp la waxal. wallahi ndax ba muy wax ci aldomoro. wallahi ba muy wax ci démocratie chrétienne. wallahi du tey. ba muy wax ci fédération Mali Sénégal. wallaay ndeysaan parent mm-hmm. ah booba ñun ay ñenn ndax mu tax ndax judd nañu wala déet dañ ñu ko nettali wallaay wallaay kon Sayid Cheikh moom mm-hmm. ku toog naan na génn yow da ngaa tardé da ngaa tardé lu muy génnati wallaay lu muy na nga naan na yàlla génn ñu gis ko waaw alxuraan lu muy jariñ yàlla am na fulla waaw ma ne ah Serigne Moustapha Sy wallaay ndeysaan jotaay bu mu toog ah jàkkaarlu mbooloo mi. ah. waaw kon ñu koy Serigne Cheikh bàyyil nañu fi. wallaay. ah. <laughs> ah waa waa ji déggloo ma ni ko. Ah? ma ni ko. Mhm. Serigne Cheikh lu muy génn. wallaay lu muy génn <laughs> la génnoon ba ñu juddoogul ba léegi. wallaay ñu judd ba am njaboot. li mu taalif mënuñ koo jeexal. Ah. li mu wax ci kaset mënuñ koo déglu. ba mu jeex. waaw waaw kon bu dee bu lu muy génnati. wax oh, dëgg yàlla wax oh, dëgg yàlla jar na laaj. kay du wàccee alxuraan ba pare jox ko Muhammad ñëwaat di waxaat ginnaaw Muhammad yàlla du def loolu. dëgg dëgg fokk ci àdduna wax dëgg yàlla. tabaarakallah. kon nag ñu ngi ziara ñëpp. jërëjëf. macha allah ñu ngi ziara Serigne Babacar Mbaye. dëgg la waaw. Serigne Babacar Mbaye wallaay ndeysaan. ñu ngi ziara Serigne Mbaye Ndiaye. isma wallaahi Serigne Mbaye Ndiaye ismalahi laasam sama kóllëre. soxna ay Sow soxna Aysatu Sow sama jigéen soxna Ndey Xadi Sow soxna Ndey Xadi Sow sama wóllëre démb ak bërki démb mosu la dellu ginnaaw benn yoon gàcce ngaalaama Ndey Xadi Sow wallaay ndeysaan jigéenu daara yi fajtal wallaay ndeysaan jigéen ñi daara fajtal yëpp ñu ngi leen di nuyu ak góor ñi wallaay ak góor ñi jigéen ñi daara fajtal yëpp ak góor ñi ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax di leen ziyaara wallaay ndeysaan di leen jox ak loxoy xol طه والله اكتاه اقدار طه جمبار لين والله ندسان ما شاء الله تبارك الله سيرين كار حيدر والله سيرين كار حيدر اقطب مودي حيدر حيدر باب مودي حيدر والله أه، شريف لا مي باخم ما شاء الله اك اك اك أه سو اخلاص والله سو اخلاص جينغا سو اخلاص بابو sama kóllëre bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg la macha allah te ba léegi dafa mel ne tey lañ ma sa xamante ngir mbaax ak dëggu moom saw ixlaas xam nga da nga wax ci e, Chériful Hassani wallaahi ndeysaan e, sama yaram daw dëgg la gis nga si Cheikh mhm. moo tax ma ne del waxtaan dëgg la del waxtaan mhm. li sëriñ Mbay Si Mansour daan doon wax. dëgg la. njaboot gi. aha ne leen man la ma xamoon yëpp wax naa ko. wallaay ndeysaan waxtaan. dee leen waxtaan. dëgg la. sëriñ Cheikh del waxtaan. alhamdulilah. te sa waxtaan dafay def lu bëri ci njaboot gi. dëgg la. macha allah. tabaarakallah. ah su ko defee nag. pour bañ a guddal. dëgg la. yàlla ñu ngi diggalu ñëpp. te nag fu ñu toll nañuy balonte ak. amiin yaa rabbi incha allah. ni ko Serigne Maodo si waxee. wallaay ndeysaan ako baax. nañu balonte ak. wallaay nañ balonte ak. Serigne Cheikh dara tardé lu ñu ludul ak. ak dafay gàllankoor nit. billaahi lazi laa ilaaha illaa hu. loo dugg mu yàqu loo yaakaar mu tas. wallaay lazim. gis nga suñu doon balonte ak. kon la ba tey Sénégal jéggi na beneen jéego. wallaay yàlla xam na ko. wallaahi. Mm-hmm. ndax mag ñi leen fi bàyyi woon mm-hmm. ba léegi mu ngi fi dëgg la kilifa yi ñu fi bàyyi woon ba léegi ñu ngi fi mm-hmm. ñu ngi doxal ñu ngi wax ak njaboot gi waaw lu tax dara mënta sotti wallaahi yàlla xam na ko kon ci ñun la ci njaboot gi la ci njaboot gi la wallaahi kon nag njaboot gi ci boppam ñoo war a wëlbatiku. di ci uhhuh. loxo di balonte ak. di muy dëgg te yàlla tax. ay dëgg la. suñ ko defee léegi ñu gis beneen Sénégal. Uhhuh. billaahi léegi. yàlla xam na ko. su ko defee lu ñu ngi jégalu ñoo ko bokk. di ziyaara ñëpp. alhamdulilah. di ñaan yàlla yàlla bu mu bu mu sunu mujjantalu gàmm. amiin yaa rabbal aalamiin. barki yonent bi. yàlla nañ ko ñaanaat eur bii déwén. waaw atum tubaab bi. te mu dàq ren. yaare ñëpp mu dàq ren. wallaay bu na mee ñaaw yàlla na mel na ren. amiin amiin yàlla bàyyi la fi. yàlla nañ ko yàlla boole. yàlla bàyyi la ak sa rabbi. njaboot. amiin yaa rabbi. nga dund téeméeri ak juróom fukk. yàlla nañ ko yàlla boole ñun ñëpp. ci barke nañ ci bi. alayhi wa sallam. jërëjëf. jërëjëf sëriñ Adama. ma sey nga may ma. juróomi minit mbokk yi ngeen jéggul ma juróomi minute rek suñ ko paasee ma dellowaat antenne bi mbokk yi mooy dama bëgg a joxe loo xam ni nit kuy naan sàngara yàlla dana la ci musal nit kuy njaaloo yàlla dana la mu ci musal boo amee sa jabar yaakaar ne mi ngi njaaloo wala nga am sa jëkkër yaakaar ne mi ngi njaaloo wala nga am sa doom ji naan sàngara wala muy tox wala muy def yeneen yu bon yoo xam ni dëgg-dëgg ay bêtises la te nga bëgg mu dañ hmm. sukkandikul ci alxuraan bu yàlla dogalee nga bind ko benn bu ci nekk hmm. nga bind ko juróom-ñaari yoon hmm. am na lu xam ne nag eh, damay yem ci rek mais bu ma boo weeteeg man nag ma wax la leneen mais boo ko bindee juróom-ñaari yoon rek jox ko ko bu soob yàlla yàlla dana ko dindi waaw maanaam loolu laa mën a wax ci kaw mooy lan auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim yaa ayyuha alladina amanu ittaqullaha wa daru ma baqiya min riba in kuntum muminina aw in kuntum muminina mi ngi nekk ci sóoratu baqara sóoratu baqara ku ko bëgg a gis ban aaya huit ah, juróom benn téeméer ak juróom-ñett ku ko ku dem da fekk aaya bii ci sóoratu baqara fa nga koy jële nga tegaat ci beneen يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون سورة حشر بودميتش سورة حشر آية ديست بودميتش آية سورة حشر ديست دنكو فك آية بيما وخليجي نغتو بنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتيكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم سورة حديد بودمي سورة حديد تي نيار فوكيلو آية اك جروم جروم نيار موي 20 27 موي 27 دي موي نيار فوكي آية جروم نيار كو ديم آية بوبا دانكو فك تي سورة حديد nga toxuwaat yaa ayo ladina amanoo اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يانكو ngi koy سوره ال عمران تي 101 تيميري ايه اك بن ايه موي 101 كوكو ديم داغا da ايه بوبو aaya سوره ال عمران Ali Imran nga toxuwaat yaa ayyuha alladina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan su ko defee yaa ngi koy fekk ci sóoratu Lahzab 669 juróom benneelu fukki aaya ak juróom ñeent ku ko dem da ko fekk ci suratul ahzab beneen bi nga toxwaat yaa ayyuha alladina amanu ittaqullaha wabtagu ilayhi alwasila wa jahidu fi sabilihi laallakum tuflixuuna yaa ngi koy fekk ci suratu maida 36 fanweeri aaya ak juróom benn aaya di 36 ci suratu maida nga ñëwaat ci juróom ñaareel bi yaa ayyuha alladina amanu ittaqullaha wa kunu maa saadiqin yaa ngi koy fekk ci sóoratu tawba ci téeméereelu aaya ak fukk ak juróom-ñaar cent dix-sept yii aaya benn bu ci nekk bu yàlla dogalee nga bind ko juróom-ñaari yoon boo ko joxee kuy njaaloo dana bàyyi njaalaw dootu ko def. seen seex bi ci kaw. 600 bi nga wax est-ce que mu aaye bi ah waaw aaye bi. 688 waaw 688. su ko defee euh, yàlla dogal léegi aay yii ma wax képp ku yàlla dogal mu bind ko benn bu ci nekk mu bind ko juróom ñaari yoon daal di koy def saafara jox ko nit ka mu naan ko wala mu jox ko waa kër ga mu naan ko képp ku ciy def lu bon dana xëy xëy bàyyi ko te doo ko wax dara. mais nit su fekkee dafay def lu bon nga naan ko bàyyil nangam bàyyil nangam bàyyil nangam cooway bare mais loolu du ko faj yow da ngay bind boo ñëwee nga bind ko raxas ko ba mu set jox ko ko bu dee xale bu di léegi mun mu jub bu dee kuy naan sàngara dana ko bàyyi bu dee kuy tox yàmbaa dana ko bàyyi bu dee nit koo xam ne def lu bon la dana ko bàyyi bu la neexee nag soo bindee aay yi ba pare nga def ci laa ilaha illallah muhammad rasulullah 33 ahmadu rasulullahi 33 moom nga koy booleel soo ko defee bu soobee yàlla kooku dana jub dana baax boo ko xasee ba def bu ko waxati dara bàyyil rek mooy xëy xëy xëy bàyyi lu bon la mu nekkoon lépp insha allah su bare maanaam ay lu bare la nag maanaam dafay dafa am ni lii mooy waxu penc mi mais am na leneen loo xam ne macha allah dana jëriñ waaw mais lii moom waxu penc mi la ma tuddaat ko mhm. juróom-ñaari aaya la ci alquran aaya bu ci nekk wax naa leen fu mu ban aaya la nekk ci saar wa ak ban numéro la nekk kon be bu njëkk ba yaa ayuha alladina amanu ittaqullaha wa zaru ma baqiya min riba min arriba wa zaq ma baqiya min arriba in kuntum muminina mi ngi ci sóoratu baqara aaya 688 juróom benn téeméeru aaya ak juróom ñetteelu fukki aaya ak juróom ñett 688 co loolu la aaya boobu foofu la nekk beneen aaya bi yaa ayuha alladina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qadamat li gadin wa taqullaha inna allaha xabirun bima taamaluun mi ngi nekk ci suratu xashri aaya 17 fukki aaya ak juróom ñaar mooy suratu xashri su ko defee nga ñëwaat yaa ayuha alladina amanu ittaqu llaha wa aminu bi rasulihi yutikum kiflayni min rahmatihi wa yajcal lakum nuuran tamshuuna bihi wa yagfir lakum wallahu gafurun rahim mi ngi nekk ci sóoratu xadid aaya 27 muy ñaar fukkeelu aaya ak juróom ñaar ci sóoratu xadid saar woowu la yàlla di tudd weñ saar wu am solo la nag mais aaya bii lañ leen ci jëlal tabaarakallahu nga taxawaat ci beneen aaya yaa ayyuha alladina amanu itaqu llaha xaqa tuqaatihi wala tamuutunna illa wa antum muslimun cent téeméer ak benn aaya ci suratu ali imran nga del siwaat ci beneen aaya bi yaa ayyuha alladina amanu itaqu llaha wa qulu qawlan sadida su ko defee mi ngi nekk ci suratu lahzab juróom benn fukk aaya ak juróom ñeenti aaya 609 ci suratul ahzab nga delsiwaat ci beneen bi yaa ayyuha alladina amanu ittaqullaha wabtagu ilayhi alwasilata wa jahidu fi sabilihi laalakum tuflixuuna mu nekk ci suratu maida 336 fanweeri aaya ak juróom benn muy 36 nga daal di delsiwaat yaa ayyuha alladina amanu ittaqullaha wa kunu maa as-saadiqiina mi ngi nekk ci sóoratu tawba mooy sóoratu saar bi nga xam ni amul bismillahi rahmaan ci alquran mooy tawba mi ngi nekk ci aaya téeméer ak fukk ak juróom-ñaar cent dix su ko defee yii ku ko bind benn bu ci nekk nga bind ko juróom-ñaari yoon jox ko nit koo xam ni ku dëng la moo xam ku góor la wala ku jigéen la bu àndeek dogalu yàlla ci barke alquran lépp lu bon moo tax damay wax ni su ma ko sañoon ki nga xam ni xam naa sax waaw mën naa ko wax sax ki nga xam ni mooy buuru réew mi mu am lim boo xam ni ndax lim ba nag du ko tudd mais mu am lim boo xam ni bu ko bindee fexe ba réew mi yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp maanaam ñu denc foo xam ne réew mi danañ ko mën a naan ba mi gi dana wàññeeku mm-hmm. wallaay waxkatu lu bon yi dana wàññeeku defkatu lu bon yi dana wàññeeku su boobaa am na loo xam ni police bu nu ci dara gendarmerie mënu ci dara douane mënu ci dara yàlla rekk ci man dara su boobaa nag dafa am nit fu mu mën a yem mu taxaw fa li ci des mu jox ko yàlla nan lañ koy joxe yàlla mooy aaya yi ngay bind ki nga xam ne mooy nekk buurab réew mi bu ko bindee ab lim. Mhm. def moom xam na nu koy defee ba réew mi man ko jëfandikoo. moo xam ci benn façon moom ndax duma ko wax ni nii lay def nii lay def. buur moom am na xelum boppam moo xam ni mën na fexe ba baa réewam jëfandikoo ko. Mhm. bu ko defee noonu bu soobee yàlla. bu réew mi dana nekk nit ñëpp danañu yaru te kenn du sonn. su boobaa banditisme gi dana dana dana néew. ñii jur ay doom di ko sànni bu boobaa dana gën a wàññeeku. problème yi maanaam yëpp loolu rek mooy mën a dindi kii. Mhm. mais jaar jaar fii dara. su ko defee kon euh, cadeau la boo xam ni mhm. jox naa ko sëriñ si mhm. jox naa ko président réew mi mhm. jox naa ko ñeneen ñoo xam ne dañoo bëgg a baax te bëgg a baax le te mënuñoo baax le gis nga lii may wax nii du lu ndaw de dafa am euh, tabaarakallaa damay bañ a tudd tur wi ndax kooku dafa nekk ci fu siiw am réew moo xam ne dañoo nekkoon ci problème ñu wax ko kilifa rajo booba kilifa rajo boobu ni loolu du domaine am hmm. mu wax ko kenn ci gaañi waa ji ñëw wax ma ko ma ni ko nañu def réew ma ban réew la mu tuddal ma réew ma ma ni ko nañu def nàngam ak nàngam ak nangam hmm. président réew ma hmm. su mënee fexe moo xam daf koy def ci ay kanet ñu boole koog jus yi wala ñu def ko ci usines yi wala ñu def ko ci fa nga xam ni fa la réew ma di naane seen ndox ma bu soobee yàlla président réew mooma bu tëddee dana nelaw jàmm rek ay xew tabaarakallaahu yàlla dogal na mhm. am naa njorti ni def nañ ko ndax man ba mu waaj waxee ma ni ko loolu laa ko wax mhm. mu ni ma ah, li nga wax am na solo ma ni ko non alxuraan la li may wax nii mhm. ma ni ko alxuraan la man du ma waxantu yàlla la ma bind du ma wax lu ma gëmul du ma wax pour intérêt du ma wax pour bëgg daraja maanaam da damay wax dama yàlla moo tax ma di ko wax jubluwuma ci kenn ku kontaan yooyu yooyu moom mooy itteelu ma dama koy wax rek ngir jëmmi yàlla mais gis nga kaalidu lii. wër na yàlla ni. su fekkente ni defoon nañu ko dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg léegi ñi nga xam ne ñoom ñoo yore sécurité réew mi léegi ñu seen xel dal. te itam man nga fee nekk lu yàgg boo muytul da gëj a dégg doom ju ñu sànni ci mbedd. waaw ah, loolu am tabaarakallah kon yalna yàlla doli sutura ma sëy man nga ubbiwaat téléphone bi 33 889 83 31 wala nga def 33 889 83 32 su ko defé lola yalna yàlla doli sutura bismillah mbok bismillah wa alaykum salam wa rahmatullah waaw waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli aan maa ngi lay nuyu Cheikh Tidiane Aan wala Cheikh Tidiane Diak. Cheikh Tidiane Diak. ah Cheikh Tidiane Aan laa ko tegoon. ja Diak wala du Diak. ah Diak la kay. ah. mu ne. <laughs> waaw kon Serigne Cheikh bisimilah. maa ngi lay ziyaare bu baax Diak. Hein waaw. dafa am solo dëgg la. man nga ko. ah gëm nga ko waaw waaw waaw. gëm la dëgg la. ndax lu koy dugal ay fàccee bu ne. waaw. daa ci dëgg la. pare ma tëjee ko yaa yàlla si am na isbiroo wa sabiroo wa rabu tax laal tufla laala turhamoon est-ce que ca sóoratu Ali Imran jeexal mooy jeexal ca Ali Imran yaa ayyuha allazina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wa taqullaha la'allakum tuflihun yenn saa yi sax ñu bindal ko xale buy lekk suuf pour mu bàyyi lekk suuf ba Cheikh ki ko ko naan ku ne dootoo caaxaan est-ce que yi dëgg la jërëjëf Cheikh Ahmed Tidiane Diack yàlla na yàlla dolli sutura ñu ngi lay ziar bu baax tabaarakallah ñu ngi lay ziare bu baax a baax. alhamdulilah Gaye. waa Kalidou Gaye xanaa. wallaay jërëjëf jërëjëf. jërëjëf Diak gëj nañoo gisee nag. alhamdulilah. mbas masta leen coono ci gàmmu gi. alhamdulilah. tabaarakallah Diak. الحمد لله tabaaraka allah mbokk bismillah salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah Abdou Tidiane Niang la béyka kooku Abdou Aziz Ndione Kisane est-ce que Abdou Aziz na nga def yow xam-xam bi génn nga tey de da ngay laqatu gaay rek Abdou Aziz Ndione na nga def waaye maa ngi siyaar màggat naka waa Kisane gëj nañoo déggante waaw waaw man démb sax maa ngi dugg ci émission yaay suuxa di la nuyu. dëgg ma xaritam nga. dëgg la wax na dëgg yaay suuxa bu seen national dem naa ba këram. sama kóllëre la ku baax a baax. ah Masey. naka émission bi. ah alhamdulilah. bëgg naa bokk ci daara Fajtal de. Ah, bokk nga kay moom boo bëggee rek dugg nga. waaw kon kañ kañ la mën a ñëw sa kër ba ñu gisee. Ah, maa ngi fa toujours bu soobee yàlla. ah pour pour bés bi may pour bañ laa fa. mais nag sama kër ga ma daan fekk nekkatuma fa de. ah nekkatoo fa. déedéet waaw maanaam ba tey nag kër ga la sama kër la ba tey. Ah. waaw mais damaa toxal sama jëmm maa ngi euh, parcelle lu Kër Massar yi ci yoonu. yoonu Jaxaay 2 boo ñëwee parcelle unité cinq ci yoonu Jaxaay. waaw maanaam nag yenn saa yi ma ne ko yoonu Jaxaay gaa ñu dem ba Jaxaay ma ne leen dëkkuma Jaxaay. dama ne la yoon wax léegi balaa may ñëw dinaa la woo ci sa allah. waaw incha allah ah, maa ngi déglu nag. Abdou Aziz Ndione Kissane. waaw ma ne ma ne léegi dama bëgg a assuré ñaanu ñaanu kii bi. kan bi ñaanu tam xarit bi. waaw bi bi nga xam ne xas xas bi yàllaahu. xas. waaw muntaal ilmi wa mutarida. xasbi allahu wa nicmal wakiilu. waaw waaw ak ñaanu ñaan tam xarit bi bi bi ñu topp. subhaanallahi mil al miizaan. waaw waaw xaaral ma assuré ko. waaw. تبارك الله عبد العزيز عبد العزيز نجون كيسن سما كولري لا بو ياغ خمنا نينا دا فا بوج انريستري سبحان الله مانام حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير سبحان الله ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ رضا ومبلغ رضا وزينة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه سبحان الله عدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها أسألك سلامة برحمتك يا أرحم الراحمين وهي حسبي ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير كوكو بوي جان جيغا خامني واخنا ني سو تام خريت جوتي nga jang ko mok hasbi allah wa ni'mal wakil 70 fois kele 7 euh, fois wax nañu ni at ma da ko fekkewaat déwén doo dee mukk ci douze mois yi lu dul da ngaa ñëwaat ci at mi nga ñëw weer boobu kooku yàlla def na ko kon su fekkee nag leerul boo ñëwee sama kër macha allah mbokk bisimilah. asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. kooku. sëriñ Cheikh Sylla. Eh, sama mbokk Daara. <laughs> ñu ngi lay ziare bu baax. alhamdulilah. sànq dafa am ñaan bi ngay joxe ama waajib intervenir sax mbokk moom doon waxtaan ak yow. waaw ndax dafa am lu mu xaw a réer nag ndax doo si ñëwaat balaa émission bi yaa ngi ci muy ban ci. mooy nombre bi nga doon joxe sànq rek. yaa qaadiran wala. waaw defe naa boobu la waaw. yaa qaadiran wala ma bàyyi ba nga coupé. waaw su ma coupé waaw incha allah émission bi incha allah. incha allah. jërëjëf. jërëjëf. tabaarakallah. جرجف مبوك مومو بسم الله عليكم السلام ورحمة الله جاي برني جاي برني ما نجلي زيارة نويل منك آدم صو ببرني ها waaw maanaam nag eh, ñëwaguma këram moom moo def andil basari ci tiri bu yu jafé yu mana yo xamni xawma xaw fu ma ko doon mana ham, tabarakallah kon adama saw bu barni manam uh, bu fekke mi ngi deglu mom man na xam fan moy kërëm ci barni su ko défé nga man ko ñew ziaré ko yalla nako yalla sutura adunak ak akhirah. ak wala muntaqa bàccili wala muntaqa bàccili wala mam biram ñang ñep ma sha allah wa barni lañ man la man nga jarbaatu Saliou Samb. est-ce que Saliou menn. Eh, nuyul ma ko de gëj nañ gise de. ñoo daan bokk ca daairatul mustarshidina wal mustarshidaati ca kër Idi Idrissa Sarr ca Aslem Angle Mousse. wallaay ndeysaan eh, xaw ma aslem siis defe ci guy gi hmm. waaw kër madame Sarr yàlla na yàlla jéggal madame Sarr آه، نيل مسالي وسامبو بباخ سما مبوكو تالي بلا تي دائرة مسترشدين والمسترشدات تبارك الله والله إن ديسان دابد الله خالب ويتي اها بو يالا دوغالي موي لي مالا واخ ني بو فكه يالا دوغال نغا بيندكو بو صوب يالا دا نغا تاخاليكو موم موي اوك الذي مر على قريه وهي قاوية على عروسها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست من أو بيع من قال ما نم دال تي قتل ميغي سورة بقرة وا بو باسي آية الكرسي بلنغا سوري رك نغا جيس أو مر على قرية بفك بندل كوكو خالبي متككو شواو شيطان دوتو كو خوقتال ام سبيان دوتو كو خوقتال ان شاء الله تي كاتون يالا دام كو فاي تاكال وا دان كو كاي تاكال فوك تاك باخنا جيرجيف ميرسي سام الحمد لله يالا دولي سوتورا تبارك الله ا جيرجيف سين سي خمنا نيغي بوك بسم الله الو الو waaw ah, la béykat kooku. Cheikh Tidiane Diack iskay waaw. ki doon génn te doon laaj lim bi. waaw. istixfaar bi la lay leerlu. dëgg la waaw. waaw kon nee na bi. moom lay leeru nag bi ma njëkk a wax ci bi may tàmbali la wax. Cheikh Sylla Cheikh Sylla mooy yaa qaadiran yaa muridan yaa qaaiman bi nafsihi haza maradun shadidun fakfina min basihi moom laa waxoon ni sëñ Babacar Sy ah, wax nga dëgg dangaa nekkoon aras koy kon Kalidou am na maas ah kon yow feeñ nga ma ne yow feeñ nga tabarakallah deug waaw alhamdullilah jërëjëf serigne cheikh ahmed tidiane diane kon cheikh la bismillah Cheikh man la Cheikh Sylla waaw ma ne hmm. yaa na am naa ko ba mu mooy bi wax sànq rek yaa ko léegi léegi nii rek hmm. même pas 15 minutes waxe nga ko bi waaji rëti waaji rëti rectifié na kay mooy istixfaar bi waaw bu ramoon la waaw waaw gis nga de waaw waaw moom allah kon dinaa ci ñëw léegi kañ nga ñëw def émission nag léegi <laughs> waaw jërëjëf Cheikh Sylla tubaarakalla euh, kooku ci suñu waa daara ji la. mbokk mm. bismillah. aleykum salaam nga wàññi rajo bi. wàññi naa ko. waaw bismillah. Eh, sama sama sama mbokku taalibe Ibrahima Kebe bu Sibi Xutaan. Eh, nga baal ma bal maa kon bal maa lisaan léegi du may joxe te yow da nga wax 600. waaw kay moom 600 ah eh, eh, eh, amul sax lu mat 600 la. waaye hmm. ah, 286 la tax ma ne la 68 la. Ah, la war a nekk. Ah, man ma kon maa yokk. waaw parce que ay waaye nag loolu moom kii loolu xool nañu soppali saan. boore waay. Hmm. jële ma ni. Hmm. looloo tax nag ñuy dégloo. gis nga de. waaye nag tabakalla hmm. <laughs> macha allah. <laughs> waaw yéen yàlla gën a barkeel. amiin yaa rabbi mooy yaa yow la si naamunu itaqoo. Hmm. allaha ma baqi min riba. Hmm. in kuntum muminina. suratu baqara. man nag maa ngi ko def 688. damay damay ragal mu nekk 68 wala. xam nga xam kii la jéem a kii eh, eh, Khalid doon na la waaw. waaye fekk boobu waxtaan nii xam naa daf ko bañ a dagg. dëgg la. waaye yéen a gën a barke. tabaarakallah. ñu ngi lay ziar eh. ñu ngi lay ziar bu baax nag. waaw nuyu ngi lay ziar bu baax. ak ma ngi eh, nii. <laughs> ñun daal moom daal su ma tuddee daal damaa am ñu ma fàtte ñoom Ndeye Khady Sow ñoom yàlla barkeel la. ak yal na la. jërëjëf jërëjëf tabaarakallah yow sama kóllëre nga bu baax sax tabaarkal bu baax kay wallaahi que kon waaw baax na kon euh, aay bu njëkk bi yaakaar naa jar na ratifié ndax nee na maanaam euh, suuratu baqara waaw mbokk bismillah waaw Cheikh la béyka Abdoul Aziz la arrêté waaw Abdoul Aziz Njoon Kisan saar bi aaya bi nga wax noonu juróom benn téeméer ak nangam man dama jaaxaloon man de Seck Ndiané moom a gën a jàng de waaye loolu <laughs> non non dañoo juum. <laughs> Ah, moom laa bind. Hmm. ma binduma numéro yi sax. Hmm. Ah. keneen moo ko numéroté mais du man. Ah, kon damay juum waaw turam mi ngi nii sax hmm. sama xarit la. moo ma ko bindaloon. moom bi mu ko bind bindalee nag xam naa moom moo juum ci ni mu bind ci aaya bi. moo tax ma jaaxle lool ma ne juróom benn téeméer. waaw. <laughs> mais nag sóoratu bàqara xaw naa sakkan de. waaw ah, ci deux cent la deux cent. kon macha allah. Hmm. kon jërëjëf waaye gis nga de. Hmm. réew mi ñëpp jàng. su ko defee kon. allo ah, allo bisimilah. maaleykum salaam wa rahmatullah. Eh, muy ban ci kooku Babacar Dieng. <laughs> est-ce que. te beneen wax dama fekk daal ba préparé lu ma enregistré. Uh-huh. téléphone bi fekk sëñ boobu xaw Adama la xaw ma ñëw woote. fekk nga war na dellu ca istifaar ya nga doon wax ak salaatu ya yëf uh-huh. mu ñëw dagg nga ñëw jëlaat leneen fa bàyyi la nga bëggoon a waxaat. moo tax téléphone bi léeg-léeg mu toll foo xam ne da ngeen ko war di coupé bu kenn woote. dëgg la. parce que da nga ne xaaral ma ñëw delluwaat ci. waaw astaxfirullah ñetti yoon da nga ne fàtte nii astaxfirullah mu ñëw sone nga dugg nga bàyyiwaat loolu dugg ci leneen. waaw da nga il faut nag nga delluwaat parce que du dëkk ba dama doon wut lu ma enregistré. Mhm. li ma doon enregistré ndeke jàpp ma jëlaat suma xaay fu mu bëgg a nga commencé waat rek mu daggal. jërëjëf jërëjëf tabaarakallah. <laughs> jërëjëf waaw jërëjëf Babacar Dieng jërëjëf. kooka yow suñu kóllëre gi bu bu yàgg nga. Babacar Dieng wallaahi waaw waaw benn. Ah, dafa ñëw waaw ndax suñu mos nañu film ñun ak. bu naan la jaww ah, ak ñoom Ndeye Khady Sow yëpp. ba léegi defe naa affaire ba effacé wul. non non xam nga filma ba dama ko filma woon am ku doon coow foofu mën a xaaral ma. Moussa Moussa Nguer la moo tax ma ne Moussa ngeer day mu dëgg dëgg dëgg dëgg suñu film bu bu bàyyi woon mu dem dana nekk. wallaahi souvenir bu mag souvenir mag sax defe naa bu mu ngi woon. wallaahi xam nga filma ba dama ko doon effacé hmm. ah, nga ca biir. ah yi ñëpp ah, boobu moom war nga ko indil waa Daara ji. dinaa ko lijjanti dinaa ko lijjanti mu ngi ci sama kase bi. incha allah waaw waa Daara Fajtal waa Daara Taaxa. tabaarakallah. yóbbuwoon naa a gis nga gis nga Babacar. président Massé neen nga indi ko. giñ nàkk ci yàlla. ma <laughs> ko indi incha bi may tudd istixfaar bi. wallaahi sama xel ngi ci yow yàlla xam na ko. est xam naa ni booba. <laughs> wallaahi <laughs> moo tax moom nga daan bàyyi ni loo bindul fàtte ko. waaw. te itam ñu ngi tuddati euh, Cheikh Tidiane Sembène bu Rufisque boobu itam. Mhm. boo ko jotee nga ne ko daal gis yonent bi gën a yomb gis ko. waaw ah. <laughs> Cheikh Tidiane Sembène de. kon de mu lay dégg. amoon nañu fi rendez-vous ak moom ba ma préparé bay dem ma téléphoné téléphoné téléphoné wuyul ma ne bon ki nga woo wuyu la xaj da dafa àndee ko fa wala dafa jàpp ndekete ma ngi fi woon kii jot yi rek ñàkk a jotante gi la woon. Mhm, mhm. ak ko naqaree gis. beneen bi itam ma woowaat ko mu ne ma mu ngi war a ñëw boori Maris xaj na mu ñëwee ba boor yooyu dina ma woo ñu dajee ba itam xam naa ñàkk a jot gi tax. man daal dama ni mbaa xam naa ñemewu maa wax ñu dëkk Tëngéej de mais ñoo ma fa jot a xam daal <laughs> yenn yi xam naa oto yay jafe. da ngay jaar ci benn secrétaire am bu ñuy wax Pape Guindo. <laughs> baax na boo fa jaaree de ba soobee yàlla di nga ko <laughs> damay xëy benn bés dem Tëngéej rek bu soobee yàlla ma ba ma diggee ni dinaa fi ñëw. wéé <laughs> fàtte woon naa sax ni defoo naa nekkatu si sax ay eh, ma ci boole jaww damay xaar ba weekend bi passé rek ma ma xëy rek fëgg la y' problème. incha allah. <laughs> waaye nga nga xoolaat saar yi nga doon wax léegi am na ci benn boo xam ne tam fa nga tu mooy bii ma doon wax 600. non bi ñaar la bi ngay wax ñaari saar la yoo xam ne da nga ciy xaw a juum yoo xam naa ki doon noté li nga. non ki baax na waaw léegi. Uh-huh. danaa ko waxaat bu bu ma ci juum rek ci note bi. ñi yore kaamil bi. Mm-hmm. waaw su ko defee damay bañ a bind damay bañ a tudd tuur ki ko doon bind turam a ngi nii. Ah, mais booba maa nga wal fajri. Mm-hmm. ah kon moo ko bind fekk ma wal fajri indil ma ko fa. waaw fa juum rek. waaw gis nga looloo tax xam naa moom moo juum ci ni manta ma ma xool rek. Mm-hmm. jàpp ni mu bindee noonu la. incha waaw. xam naa su fekkee mi ngi ñuy déglu moom boo moytuwul dana ko ratifié moom ci boppam mu xam na ko. même ñu déglu sax bi dinaa fa ñëw incha allah. dëgg la waa incha allah. incha allah ba ñu ngi continuer déglu rek ba xam. tabaarkalla. incha allah kon euh, jërëjëf Babacar Dieng ñu ngi gërëm sama mbokk Mamadou Fall. Mamadou Fall. waaw macha allah bu kastoor ñu ngi koy nuyu bu baax uh-huh. tabaarkalla gën euh, kon basmillah salaamaaleykum salaam wa maa ngi lay ziyaare bu baax yàlla na yàlla nangu xale bu nopp bay génne dëtt moom est-ce que xale bu nopp bay génnee dëtt góorangeer ca sama xarit lool men wallaay ndeysaan eh. dëgg la kaalidu maa ngi lay ziar bu baax nopp bi amul sax euh, waaw maanaam su fekkee xale bi dafa am nopp bu génnee dëtt mhm. ci li ci xam te ma gis ko waxuma nag li ma ci xam te ma gis ko. waxuma nee nañu. Mhm. maanaam dafay jul jël neb neb. neb neb doomu neb mhm. mu togg ko ak déwlin. waaw mu togg ko ak diw. dégg nga bu ko toggee togg togg togg ba mu ñor fekk neb neb bi ñor na mu bàyyi ko ba mu sedd mu jël coton maanaam witteen di ko ci bu tooyalee witteen bi mu tooy mu di ko ci nal muy dugg mu di ko ci saañ. Mhm. su fekkente ni am na lu nekk ci biir bu soobee yàlla loola moom dana génn du ma ne nag waxuma nag nii nee nañu maanaam du lu ma tato ni lu ma gis la dund ko gis loo def ba gis la waaw lu ma def ba gis ko sama maam def ko ba gis ko hmm. sama yaay def ko ba gis ko am na solo am na keneen ku ñu ko defaloon ba fii mu toll nii am na jëkkër te nopp yi dafa daan dafa daan xeeñ hmm. bay génnee sax hmm. maa mi ngi dund mi ngi dund am na jëkkër su ma neexoon ma ni diw la kon loolu moom du lu may tato ne waaw lu wér la boobu moom maanaam dafay jël neb neb toggi ko delwin ba mu ba mu ba mu ñor mu daal di jël neb neb boobu jël coton maanaam witteen dugal ko ci ba mu tooy mu di ko nal ci nopp bi di ko ci saañ bu fekkee mi ngi ci mhm. léegi dafay daal di commencé lépp lu nekk ci biir daf koy nettoyé mu génn waaw su fekkee nag nopp la boo xam ni yooyu amu ci bu fekkee nopp la boo xam ne loolu amu ci mhm. dafay daal di dem dafay daal di wut tóor tóoru kii tóor tóoru fuuf waaw gis nga tóortóoru fuuf. Mhm. képp ko xam ne am nga problème mu nopp. Mhm. sa nopp du métti mais nag fuuf yombul xam nga. Mhm. looloo taxoon ma ni garab yi nekk ci suñu réew dañ ko waroon di sàmm bañ ko yàq ndax lu garaaw la di yàq garab yi. gis nga tóor tóoru fuuf boobu boo ko génnee waxuma la dara fuuf. bare gi mu bare njariñ mais dafay rey jaan. am na xeetu saafun yoo xam ni bu fekkee nit ki jaan daf ko mat am na benn rab boo koy booleel ci rab yi xol ba ngay jël xolu rab wa mais du ma amul ma droit ndax eh, waaw xolu rab wa waaw kóore waay kon 278 léegi ñu ni kon aaya boobu ci sóoratu bàqara 278 la ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett kon la daloon Souleymane ci fu mu doon attee dal na ma Souleymane doomu ma ko corrigé man tam sama doomu ma corrigé léegi waaw jërëjëf yàlla nga gudd fan mbokk bisimilah aleykum salaam wa rahmatullah aha waaw aha waaw faqadarnaahu fa ni'mal qaadiruuna bindal ma ko gaaw boo ko bindee juróom-ñaari yoon ut ndoxum lay cinq litres ci ndoxu lay bëgg naa ci de euh, est-ce que ah, mm-hmm. ah. est-ce que fa qadarnaahu fa nicma alqaadiruun waylun yowma idin lil mukadibin waa xam naa ko man maa àgg foofu rek fa qadarnaahu fa nicma alqaadiruun est-ce que boole koog ndoxu lay waaw waaw xanaa ndoxu lay da du boo koy denc du jege fu tàng ah waaw kay boo ko jegee fu tàng rek boo moytul nga ñàkk ko. waaw. est-ce que. allahu akbar ah kooku moom moo gën a yomb li ma ah duwaan nag li ma wax a gën a yomb nag. déet loolu moom dama koo gis Serigne <laughs> loolu ma wax noonu <laughs> lu wér na comme ni jant bi dana fenk suba su ko defee kooku itam macha allah faqadanaahu fa ni'mal qadiruun yàlla na yàlla dolli la sutura ci sóoratu mursalaati mhm. alhamdulilah tabaarakallah jërëjëf si Ahmed Tidiane Diack su ko defee si eh, ah, waaw mbokk kon maa ngi ñëwaat ci li ah. xam naa dañuy jaalewaale suñu benn membre bu ñuy wax eh, Awa Ndiaye dëgg la Awa Ndiaye ca Cambérène waaw am na ku waaw maanaam su fekkee kenn ñëwul laaj bi lan la dafa am ku laaj léegi benn gént bu xaw a doy waar nee na. Uh-huh. ci yonent bi dafa gént yonent bi. Uh-huh. bon ci kanam ci kanam dafa mel ni naar rafet lool. Uh-huh. mel ni sax lu mel ni ay jamaa moo ne ci kanamam. mais nee na nee yaram bi. yaramu xar la. der comme deru xar la yaram bi mer. deram bi yaram deram bi deru xar la. deru daal mais mais nee na après nag mu am ku ñëw ne ko yonent baa ngi nii. kii mooy yonent bi. waaw loolu muy xam nga yenent baa ngi nii. bokkul ak man maay Muhammad su ko defee nag ah yonent alayhi salaatu wa lépp lu ko waaye génte moom lu wér la. am ma ndax mu ñëw ci yaramu xar la yore. su doon man tamu laaj ma. dama naan ko bu yàlla dogalee nga génnee xar. rendi ko. sarxe ko te yàlla tax yàlla dana la dolli sutura dana la dolli teraanga te man ngaa daje ëllëg moom yowmal xiyaam su doon man loolu laa koy wax ndax yeneen yeneen yaramam du doon du doon yaramu xar mais loolu mu ci junj nag ba xelam dem ci xar na ut xar rendi ko te yàlla tax moom kanam gi moom macha allah ci waaw moom ah, loolu moom laa ko junj mbokk bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah est-ce que Baye Gueye sama xarit waaw waaw. <laughs> maa ngi lay ziyaare bu baax. sànq ci ngoon ak maa maa ngi lay tudd ak Pape Ousmane Diop. dëgg la sama xarit Pape Ousmane tabaarakallah. wallaay ñu ngi lay nuyu di la ziar. alhamdulilah. sànq ci takkusaan rek ñu ngi lay tudd. dëgg la kay. maa ngi leen di ziar bu baax a baax. alhamdulilah. tey déggalu bi te dégg bi déggante bi. ci gàmm gi jéem naa la jot sax waaye xam naa ne boobu temps da nga da nga jàppoon. waaw dama xawoon jàpp nag. waaw maa ngi ziar sëñ Kalidou. Kalidou ah, Gaye waaw ñu ngi lay ziar bu baax sëñ bi. ah jot jot naa message bi ci ngoon. Ah, ah. waaw jërëjëf <laughs> waaw jërëjëf jërëjëf. yàlla leen yàlla baax a baax. tey tey dégg naa sama xarit bi sëñ Kébé te sëñ Kotaan. waaw Kébé. waaw dégg naa ko sànq. Ibrahima Kébé bu baax. wallaay ku baax ndeysaan. ku baax ndeysaan. Mm-hmm. yéen ñëpp baax yàlla na leen yàlla. amiin yaa rabbi yal na yàlla mottali seen yéene ci jaam yi. nangu yëpp alhamdulilah xam naa ni waxtu waa ngi bëgg jot. Mhm. dama kontaan ci yéen ni naa leen wasi yàlla leen ba kii ci lañ soo incha allah. kontaan nañ bu baax. jërëjëf man maa kontaan. baarakallah. alhamdulilah rabbil alamin. jërëjëf Baye Guèye. ñu ngi lay ziar bu baax. Baye Guèye sama mbokk waa Ndar. Mhm. tabaarakallah. bu baax. alhamdulilah kon. yaa ayyuha alladina amanu ittaqullaha mhm. wa zaroo ma baqiya min riba hmm. in kuntum na kon sama doom bi hmm. mooy sama mooy sama taaw bu góor moom la ratifié na ma hmm. nee na deux cent soixante-dix-huit soixante ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñett kon six cent boobu njuumte la woon kon jërëjëf Ibrahima Kebe mais jërëjëf itam sama ndoom si ma indil mbir mi tabaarakallaa kooku moom ah yal na yàlla dolli ndax léegi laa doon wax ne yontu yàlla Suleymaan moo jubbanti woon papam ci fa mu doon àttee ba alquran ñëw ni fa fahamnaaha suleymaana wa kullan aatayna xukman wa ilman wa saxarna maa daawuda aljibaala yusabbixna wa tayra wa kunna faa'ilin su ko defee moom itam loola moo ko dal kon man loola dalaat na ma fii ci rajo bi kon sant yàlla waaw bi ma juumee ci aaya bi sama doom bu bopp moo ñëw jubbanti ma ni deux cent 77 78 la sant yàlla ci loolu euh, dogal defe naa dañ waxoon ni naa waxaat istigfaar istigfaar gis nga li wóor te wóor billaahi lati laa ilaaha huwa hmm. doy bu fekkee da ngaa bëgg am àdduna bu neex hmm. jubóog say mbokk am ad àllaaxira bu neex jubóog yàlla ak yenentam sax ci dama waxoon ni fatiha ben yon salatul fatihi juróom ñaari yon astaghfirullah ñetti yon daal di ñaan yàlla sa aajo ayatul kursi nga jàng ko 170 téeméer ak juróom-ñaar fukk yaa kaafi yaa ganiyu yaa fataaxu nga jàng ko yaa razaqu nga jàng ko téeméer ak juróom-ñaar fukk walla bu la neexee nga jàng ko 3000 dégg nga de ah, ma waxaat ko fatiha benn yoon salaatul fatixi ñetti yoon ah mu waay salaatul fatihi juróom-ñaari yoon sept fois mm-hmm, nga jàng astaghfirullaha ñetti yoon ñaan yàlla sa aajo daa di wala bu la maanaam ñaan yàlla sa aajo mm-hmm. bu la neexee nga delluwaat jàng fatiha ñetti yoon mm-hmm. jàng fatiha benn yoon salaatul fatihi juróom-ñaari yoon astaghfirullaha Hmm. nga jàng ko juróom-ñaar fukk façon la nga jàng ko juróom fukk ñaan yàlla sa aju ci yëkkat caw ci kaw bu la neexee laa wax mais bu la neexee jaratul sax ngay waxaat loolu hmm. dégg nga hmm. daal ñëwaat waxaat fatiha benn yoon salaatul fatihi juróom-ñaari yoon astaghfirullaha juróom benn téeméer ñaan yàlla sa aajo daal di bu la neexee nga jàng astaghfirullaha nag maanaam ay lim la yow yaay tànn ban lim laa ci mën a continuer astaghfirullaha deux mille huit cent soixante douze wala trois mooy ñaari junni ak juróom ñetti téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar wala ñetti téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom bu la ci neex aywa. Hmm. Euh, nga jàng ayatul kursi yi cent soixante dix yaa kaafi yaa ganiyu yaa fataaxu yaa razaqu nga jàng ko cent soixante dix yaa kaafi yaa ganiyu yaa fataaxu yaa razaqu cent wala nga jàng ko trois mille maanaam téeméer ak juróom-ñaar nga jàng ko ñetti junni bu la neexee lim boo ci mën a wéy rek nga sax ci euh, li wér te wér mooy li ma wax nii bépp doomu aadama waxuma nag ku ci saxul mii bépp doomu aadama bu ci sax da am wér danga am sutura danga am teraanga ci àdduna danga nga te da nga say mbokk ëllëg danga am teraanga danga jubook jubóog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci kàttanu yàlla ci ca barsax kon su ko defee loola cinq heures jot na di lu ma ci xam la ilaha illa allah kon allahuma ya mufattih al abwaabi wa musabbib al asbaabi wa ya muqallib al qulubi wal absaari wa ya dalil al mutaxayirina wa ya ghiyafa mustaghithina wa ya mufarrij al maxzunina أغثني أغثني أغثني يا رحمن يا رحيم توكلت إليك يا رب فرضيت فضلك قداءك يا ربي فرضيت قداءك يا ربي فرضيت قداءك يا ربي وفوضت أمري إليك يا ربي أجب يا مجيب يا رزاق يا فتاه يا لطيف yaa qaribu nga daal di ñaan yàlla sa aajo allahuma salli wa sallim wa barik ala sayidina muhammadin wa ala ali sayidina muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala almursalin walhamdulillahi rabbil alamin yàlla na yàlla defal ñu sutura àdduna ak àllaaxira te mbooleem ñi nga xam ne ñoo doon déglu maa ngi sant Khalidou Gaye alxaaji Masay Jong sama doom bopp tey muy euh, patron yaat ma ñang ak. Euh, am naa di ziar Pape Guindo ak Ndeye Sène Pape Guindo ak Ndeye ak sama jarbaat soxna Fat Bintou Cissé. ak ah, di gërëm bu baax nag di gërëm bu baax di gërëm bu baax Seydi Sey. Mm-hmm. yal na la yàlla jàppale ci zahir ak baatin. amiin amiin amiin kon ñu ngi leen di dig daje incha allah ba alxamis. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوك إديتري راديو منسبال دكار إرد ين أكشى أحمد تيجان ين أين في الأوتان وتكت عني كل شخص لم يرد وجهك فصرفه سريعا إذ يرد والكسرفا جملة ما يفسدهن يدي وعن داري سريعا حيثهن وتدخل المصلحة في يدي وفي داري وثبته بالهاد الوفي وأعلني وأعلم ما يعينني وتكني جملة ما يعينني ومسكني سلم من الفجار وامن على الأهل بماء جاري واجعله ربي مننا المعجلة جالبة لإنني المعجلة يا حي يا قيوم كن لي مجيب أنت المجيب والكريم والقريب إليك وحدك فررت من سواك فكن بساك قائدي إلى هداك وليكن ربا وليا ونسير ولجميع المسلمين يا بشير وكثرا من خيرات هذا البلد ورزقه والتكفيه عن ولتثبتا فيه جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم ونجنا من شر هذا الشمن وشر غيره وكل فتن ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن وسقنا شر نصارى واليهود وشر إبليس وكل سي جهود والجن والدجال والسودان في السرق والمغرب والبيدان وشر ما في الأرض طرا وسماء من ظاهر وباطن اكتتما أيا لطيف يا كريم يا جليل عامل جميعنا بلطفك الجميل وكلنا قل لنجاة وفلاح ووفقنا لثواب وصلاح والتغنا بفعل ما أحببت وارتكنا عن فعل ما أبقبت ولا تكن مبتليا منا أحد دهرا بما ليس يطيق يا تمد وهب لنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح بجاه اليوم وجاه من ولد فيه فرمنا مثله ولم نجد محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباه عليه سل أبدا خير صلاة بها نراتق الخيار والشقاء وهب لنا أفضل الذي آتانا وترك ما عن فعله نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بسنة والسكن